أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد جنا بن سنتي على جلتي ينتم بصلى الله عليه وسلم ni ngi nuyu ñepp di len ziyara te di len bal haq te ñaan yalla bo lañu jéggal ginnaaw bi xam nañu ne nag ne dañoo nekk ci fan yi nga xam ne ñoo ñooy mujj ci weeru koor bi bokk na ci li nga xamante ne moom mooy li jaadu mooy ñuy waxtaanee loo xamante ne dana delloo si nit ñi ci seen borom subhaanahu wa taala te dina jaaj seen xol yi te dina leen wëlbati ñu jël ay décision yu mat ba nga xamante ne ginnaaw koor gi danañu delluwaat seen borom subhaanahu wa taala loolu moo tax ñu mu tey indi téere koo xamante ne nitu yàlla bu mag la radiyallahu anhu muy cheikh alxaaji malik ngir mu leeral na ñu lenn loo xamante ne dana aju ci maanam wala boog lépp loo xamante ne dana aju ci loo xamante ne dana ñu jëme ci suñu borom subhaanahu wa te dana tax ba lépp lu ñuy xañ ngërëmam moom yàlla àdduna ak allaaxira ñu bañ koo am te loolu mi ngi koy wax ci bi muy jeexal téere bi muy waxee mu naan wazan nazm yakfi saalikiina li annahu بصير بحدواء القلوب طبيب من جيلك نوسه جيلك واي داي يكفي دوينا الصالحين واي صوبو يا نيغا خامتاني دانيو جيل ايتينيرير جيل يون بور ديم سي سن بوروم سبحانه وتعالى واي وي دوينا لين صوبو واي مانام دوينا لين سك تي لين فغال لب ba nop ba way wi ba fi yurun aji xol la aji gis la ci maanaam saafara yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci xol yi ba pare tabibun maanaam médecin la kon boog li nga xamante ne maanaam ci gàttal daal moom la ñuy wax ci suñu biir way wii nga xamante ne moom la ñu war a jàng tey insha allah mooy képp koo xamante ne da ngaa yëg ne ci sa xol maanaam am na lu dox sa digganteeg sa borom subhanahu wa ta'ala ba yëg ne sa xol dafa wow wala boog am na loo xamante ne moo ci nekk ba tax yow daal yëg nga ni lien bi nga xamante ne moo dox sa digganteeg sa boroom ni mu waroon a deme demewul noonu konontoon tey maanaam boo déggee li nga xamante ne moo nekk ci téere bi soo ci paree war ngaa jajju te war ngaa wëlbatiku dellu ci sa borom subhaanahu wa lépp loo xamante ne gàllankoor la loo xam ne seytaane teg na ko muy ay piège am yoo xam ne teg na ko ci suñu kanam ba tax di ñu ci li nga xamante ne moom mooy l'essentiel bu boobaa ñu daal di koy mën a teggi ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak doomu aadama lu dul pour ñu jaamu kon ci kaw loolu insha allahu ta'ala dinañu tàmbalee jàng téere bi nga xamante ne moom moo tudd zajrul qulub zajrul qulub moom mooy loo xam ne day jàjj xool yi daf leen di exhorter daf leen di fëgg daf leen di yee pour ñu wëlbatiku dem nag ci li nga xamante ne moom mooy seen borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu wa azuma sultaanuhu wa taqaddasat asmaa'uhu cheikh alhaaji malik radiallahu taala anhu mi ngi koy taalif mu nekk cent bayit ak li nga xamante ne moom mooy ñaan gi nga xam ne moom moo ci tegu loolu insha allahu taala bu ñu yegsee ci bayit boobu maanaam ñaan yi ci tegu yépp nag boo ko boolee juróom-ñaari bayit la ngir mu mën koo jeexale waye inshallah taala dinañu ñew ci loolu bu fekente ne suñu borom subhanahu wa taala dogal na ci ñu yexsi ci cheikh haji malik radiyallahu taala anu kon mi ngi bind zajrul qulub mu ne bismillahir rahmanir rahim téere bi qasida la boo xamante ne ñu ngi koy jàngee ci sëriñ boo xamante ne moom suñu ndijaay la bu tudd sëriñ moor sekk moom mi ngi ko jàngee ci sëriñ maam maanaam cheikh tidiane sekk bi nga xamante ne sët doom la ci maam Alpha Seck bi nga xam ne moo nekkoon si euh, euh, xalifa ci ba Seck moom mi ko jàngee ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ Mor gay moom mu jànge ko ci euh, sëriñ Lamine Gaye mu jànge ko ci sëriñ Mor Diop ak sëriñ Yusufa Diop ñoom ñaar ñoo ko jàngee ci ci Alhaaji Malik radiyallahu taala anhum maanaam ñii ay sëriñ la kon maanaam isnaad bii nii particularité bi nga xamante ne moom la am moom moo di ñun dañ koo jàng ci maanaam man maa ko jàngee Kébémer amma mbooleem ñeneen ñi nga xamante ne moom laa tudd ca ñu nekk ci isnaad bi ñu ngi ko jàngee fi nga xam ne foofu la Cheikh Alhaaji Malik radiyallahu taala noonu nekkoon ca Jaksa ca tool ya ci foofu noonu foofu la ko ñoom ñëpp foofu lañ ko jàngee bokk na ci tamit maanaam euh, bii bokk na ci particularité bi mooy ne dama koo dégg jàng ko toog sukk ci kanamam mu daal di ma koy jàngal moom ta mu sukkoon ci kanamu sëriñam mu jàngal ko ko niki noonu ba ci Cheikh Hadji Malick radiyallahu taala noonu solo nañ ko nag ci yoonul ijaaza ci ay sëriñ bokk na ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Ndiaye moom mi ko xamante ne daf koo jëlee solo ko jànge ko ci sëriñam bi nga xam ne moom mooy Cheikh Mouhamadou Mokhtar Ndiaye radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom mooy ki nga xam ne moo ma jox maanaam sëriñ boobu nag moom itam mi ngi ko jëngee maanaam jële ko ci Cheikh Alhaaji Mouhamadul Mansour ak Cheikh Samba Khoudia Ndiaye ñoom ñaar ñoo ko jële ci Cheikh Alhaaji Malick radiallahu taala anhu particularité bi nga xamante ne moom la isnaad boobu am moom moo di ñun ñëpp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu ñu tudde ba mu def Cheikh Alhaaji Malick bi bind téere bi radiallahu taala anhu niki noonu nag jëlee nañ ko ci ijaaza ba tey ci ñaari sëriñ yoo xamante ne waa kër Demba Bunna lañ kenn ki mooy Cheikh Pape Makhtar Kébé bi ki ci des mooy Cheikh Al Hadj Malick sëtu Cheikh Al Hadj bi bind téere bi ñoom ñaar ñu jëlee ko ci seen baay ci seen seen ndijaay seen baay seen ci leen yar Cheikh Al Hadj Abdul Aziz Sy radiyallahu anhu moom mu ko jëlee ci baayam Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu yoon boobu li nga xam ne mooy particularité am moom mooy ñoom ñëpp waa kër Demba Bunna lañ bokk niki nonu ñoom ñëpp manam ci kër go lañ yaro kër Cheikh Al malik bi nga xamne radiyallahu anhu mo bind téere bi ci lañ yaro niki nonu tamit mom moy isnad bi gëna gatt bi nga xamne suñu wajam jam ñi nga xamne mom lañu la ñu maaseel moom am Cheikh Al Hadj malik ci mbolam asanid yoy mu daal di wax ne manam bismillahir rahmanir rahim bismillah ñi ngi tambalé ci turu yalla ar rahman mom mi nga moy aji fess delu ji yermande arrahimi moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki yaatu yërmande mu ne hal ndax addahru hal iddahru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulul mawti baadu yanuubu hal ndax ah, taaba ndax hal boog yatiibu dana neex addahru dundu in taara ndéem naaw na alxuraabu baaxooñ ba maanaam li nga xamante ne moom la Cheikh Alhaaji Malik radiyallahu taala anu tuddee baaxuñ fii maanaam mooy baaxooj ab picc la boo xamante ne dafay karaw kan maanaam kanam gi day daal di ñuul kukk day daal di weex tàll bokk ginnaaw gi li ci des yëpp day ñuul xaw ma kóor boo lañ koy xaw maanaam noonu la picc bi di mel léegi nag su fekkente ne dafa sëgg maanaam yow lu ñuul li rek ngay gis mais bu fekkente ne dafa ni fër naaw da ngay daal di gis mag naam lu weex li nag nekk ci kan loolu nag mi ngi koy jël mu nekk métaphore boo xamante ne daf koo teg ngir wone bal ma mën nañu tëj buntu bi bu ko defee maanaam mu nekk loolu mu nekk métaphore boo xamante ne dañ koo teg ngir wane maanaam bijjaaw bi nga xamante ne moom mooy nekk ci karaw ndax li nga xamante ne moom la ñu xam moom mooy képp koo xamante ne dangaa nekk gone sa karaw day daal di tàmbali ñuul ci cosaan bu fekkente ne karaw gi nga xamante ne moom mooy karaw gu weex tàll gi nag moom loolu bi jaaw la tudd te loolu signe la buy wane ne li nga xamante ne mooy waa ji mi ngi maanaam mi ngi magasi te bu mooy jour maanaam bu defee ba bi jaaw bi fees dellu bopp bi rek maanaam li nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom moom mooy léegi kon deewam jege si na loolu moom moo tax mu daal di wax dina ndax est que loolu bu demee ba am ndax dund dana neexati wajaate mu dikk rasulul mawti ndawal deeli maanaam yenent bi nga xam ne moom la dee yónni te mooy bi jaaw bi baadu ginnaaw gi yanuubu muy wuutu nekk may muy wuutu li nga xamante ne moom mooy karaw gu weex nekkoon moo tax nag kon li nga xamante ne boo déggul lépp bi ma la wax dina jàkkaarloo wax yow wax la ne la araaka gis naa la nasi te ngay fàtte fàtte lu a nga mel ni ku fàtte al mawta dee wal mawtu te dee nag moom mawridun rootukaay la boo xamante ne falil kulli ñeel na képp kenn ci biir nit ñi nasibun ab cër bu mat sëkk min baxril mamaati ci géejey dee alaa waawee alaa yëgooma yëgal la alaa dama alaa boo xamul te bàyyi woo xel lii ma la nar a wax jàpp ko kullu mawludin képp koo xamante ne ku juddu nga fii ci kaw suuf shakka amul benn sikki sàkka annahoo ci li mbir te mbir mooy yu sallimuhu dana ko nuyu ya ay xeeti façon at luy wane luy sababal dee yaadal xabibu yow sama soppe li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom nga war a xam mooy li alquran wax kullu nafsin zaiqatul mawt képp koo xamante ne bakkan nga da nga mus dee Cheikh Alhaaji Malik radiallahu taala anhu mu alaa bu fekkente ne da ngay fàtte fàtte lu mbir mi kaay ma fàttali la ko léegi kullu mawludin képp koo xamante ne danga ngaa gane adduna wa in taala doonte gudd na umruhu ay aw aw aw dundam wala boog wa in taala doonte gudd na umruhu ay aw fanam sa yadoohu xersef ko woo ko woo léegi-léegi tey daa ay hulkatin aji woote jëm ci alkane maanaam jëm ci dee wuyu ji bu te dana wuyu comme ni ko alquran waxe ndax daf ni kullu halikun illa wajha lepp lo xamantene mom ngay gis manam lu jëm ci deela ci yàqu ci alkande lu xana jëm mu borom bi subhanahu wa taala motax kon ana nan ngay def ma ngi lay diggal legi wa iyaaka maa ngi lay moyta ndi ko tadbiran di sop ndi ko mbir yi ne yow ya am pouvoir de manipulation ak de d'administration totale ci sey mbir bul japp lolu mukk parce que fama wo det lolu na xewon de aji jariñ wa sallim kon na nga jébbal al umuura mbir yi ilallahi ci buur yàlla tatuubu te na nga taqoo tuub waxa yiir te na nga tànnloo yàlla wala taxtar te bul di tànnal sa bopp li tax mu wax la na nga tànnloo yàlla saa su nekk te bul tànnloo sa bopp mu ne fa kay fa ana naka lay nekke ixtiyaaruna suñu tànneef wa inna te li wér ba wóor mooy maxabaatil umuur yi fa mujj yi mbi mujj mbir yey mujje tax yi bu daf ñoo fàdd ñun xamuñu ko kon ku mel noonu ana naka lay tànn la boppam ndax loolu bokk na ci xelu xalaat mu le mu wér alaa dama ni alaa yëgoo ma yëgal la alaa kaay ma bàyyi loola xel mbir mi su fekkente ne bàyyi woo ko woon xel ba léegi farda na nga gërëm maa lépp loo xamante ne yàq di dogal na ko al ilahu buur yàlla bi mulki hii ci biir nguuram gi fa fii ndax ci ngërëm googu kese kese kese la nekke rida man ngërëm ki nga xamante ne yusi bu mooy ci yoole mooy ki nga xamante ne moom mooy jox ak fay ak récompense bil moo tee ci képp koo xamante ne topp na ko wama yafalu lépp loo xamante ne def na ko alhaadi aji gindee gi mooy borom bi subhaanahu wa taala aljalilu moom mi nga xam ne moom moo màgg ba ëpp xelu mbindeef lépp loo xamante ne moom def na ko dogal na ko bi xalqihi ci biir mbindeefam yi fa zaaka loolu de jamilun lu rafet la yarte bii na ko gërëm mu nii bu képp koo xam ne xolam dafa dem ci bu borom bi subhaanahu wa taala alaa waawee alaa yëgoo ma la alaa kaay wax la loo xamante ne boo ko bàyyiwul xel ma fàttali la ko daaru dunyaa këru àdduna gii daaru nawkaa këru sobe rek la wa jiifatin ak i médd yu jaabi bu haa dana ko xëccoo kalibu ay xaj faxdar ay waay mooy te ndikul bitil ka ci yooyu la kalibu yooyu la xaj maanaam li nga xamante ne moom la wax fii moom mooy këru àdduna kër la goo xamante ne maanaam kër la goo xamante ne maanaam ay sobe ak tilim tilim ak médd ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy xëccoo moom mooy xaj yi te bu fekkente ne masalan tey dañoo teg fee ab médd ay xaj ñëw di ko xëccoo yow nga ñëw bëgg a bokk ci yow la xëccoo boo moytuwul sa ngoon nal du neex boo moytuwul doo fa jógee akuk jàmm te rawatina li nga xamante ne moom la ñuy xëccoo moom mooy ay sobe la ak i médd alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la innaha nag moom àdduna daarul xuruuri kër gu wore la fa man képp leen gis képp koo xam ne safa sell na la woo ñeel ko al ay su dundam mi naa ci àdduna gii fal ko dóoru xamal ni ay nëx nëx àq yi bu moom moo cay tegu maanaam képp koo xamante ne àdduna fii mi ngi jàpp ne mbir mi daal neex na mbir mi daal tabaarakallahu fi mu toll affaire yi commencé naa nekk mën a nekk naa ci sama ndaataa tëllëx bu ñu demee tuuti ci ay jamono rek nga daal di gis mu daal di nekk ci coono nga daal di gis problème am bu fekkente ne dafa jàpp ne dafa am wér gu yaram léegi tey ñu daal di koy gis mu feebar bu ñu jàpp bu jàppee ne ay moyens yam doy na ba mu ngi dund normalement léegi tey ñu jekki-jekki ñu problème am tey bu fekkente ne situation bu mu mën a ne ba yaakaar ne fi mu toll maanaam maanaam penaar na comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxe bu ñu demee tuuti tuuti tuuti tey nga gis problème feeñu ko boo xamante ne musul woon imaginer existence am lii moom mooy adduna ku mel nii nag maanaam kon mat naa bàyyi xel ana lan nga fi def ana ak lan nga fi téye li nga xamante ne maanaam moo mat a leeral fii balaa ñoo yeggale li nga xamante ne moom mooy li Cheikh Hadji Malick radiyallahu taala wax ci téere bi moom moo di lépp loo xamante ne dañ ko daf koy wax fii jublu wu ne adduna bu ci kenn def dara bu ci kenn yittewoo dara li nga xamante ne moom la ci jublu moom mooy nanga nga fexe ba am adduna maanaam li nga xamante ne mooy bien matériel yi bu fekkente ne da nga koy am maanaam na nga am li nga xam ne moom li nga am yëpp na nekk ci loxo bi na nekk ci poche bi na nekk ca compte ya bu fekkente ne kër gu rafet la na nekk ci terrain bi te nekk ci kayit yi nga di ko dëkkee ak yu noonu waaye nag li mu lay loo mooy sax xol leneen dëkk ci leneen lu dul yàlla suñu borom li nga xamante ne moom la lay moytandikuloo ci mboolem wax yi nga xam ne moom lay wax ci téere bii ci wàllu àdduna moom mooy mu di la préoccupé ba tax ngay bàyyi sa jaamu yàlla di nekk suba ak ngoon bu dégg ba cëg ngay tës tësi mm. ngir mbiru àdduna kese ba tax li nga xam ne moom la la sa borom subhaanahu wa taala digaloon lu demee nekk say waxtu julli ak lu demee nekk sa génn azaka ak lu demee nekk sa koor ak yeneen yi nga xamante ne yëpp ay jaamu yàlla la ak ni nga ko war a bàyyee xel ci say doxalin ak say façon wuutinu alalu adduna yëpp nga bañ ko cee bàyyi xel ndax priorité bi moom da nga jël adduna def ko priorité comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran waxe bi mu naan bal tu'thiruna hayata dunya bal li fi nekk tu'thiruna la triste réalité moo di da ngeen a jox priorité al hayata dunya kër adduna gii nga xamante ne dafa suufe waaye li nga xamante ne moom ngeen waroon a xam te war koo jàpp mooy wala axirata giñ naa ne al axira xayrun moo fuuf yamul ci ne moo gën wa sax nag moo gën a sax lii la la Alhaaji Malik radiyallahu taala anhu di wax ci téere bi mu ne alaa waawee alaa yëgooma yëgal la innahaa naka moom adduna daarul xuruuri kër wore la fa man képp koo xam ne safaa neex na teey na la hooñeel ko al aysu dund min a ci adduna fal ku duuru nëx nëx yàqi bu moom ci tegu alaa waawee alaa yëgooma yëgal la innama li am ba des mooy adduniya adduna sarabun kem la bi xiyaatin bu nekk ci pàkk maanaam moom mooy mirage tey bu ñu nekk boo nekkee ci désert bi wala boog nga nekk ci tëli bi ci jamono joo xamante ne naaj bi dafa tàng da seen fële ci kanam bu mel ni am ndox a fa ne loolu la wolof di wax njunux loolu moom la tubaab di wax mirage arab moom sarabun la ko tudde bi xiyaatin bu nekk ci pàkk فيحسبه بو خامتنا دا نكو نجورت الظامي اجي ترجمر شرابا نان مانام موم دا فاي دافاي ندوخ لا و نان بو كو دافاي نك وادي يخ يوجو بو موي توك موي موي خوتي اليه جيم سي نيونوخ موما مسا فاتين اي ديستانس يو باري باري اي ديك ديك لي سوري سوري وإياه ويوسف دمي با فوف رك لم يجد داج فوفو بشيء انت دارا وان تيول ليور بور موي الحين دي minu ci mom mu fiibu da nako dal manam aduna du ci am limu bëgg bis bu jot danaan suma amé bëfëm da na def nangam ak nangam limu bëgg ko am mu daldi am bëfëm gis ne dékété projet yi des na war naa am bac mu daldi koy am daldi gis ne projet yi des na war am licence su démé ba am ko gis ne projet yi na war am master su démé ba gis ko ni sama diplôme d'ingénieur bi war ko am su démé ba gis ko dal ni légui ya des su demee nag ba am ko daal di commencé tërali projet amul benn jour boo xamante ne li mu bëgg dana ko am saa yu nekk mi ngi problème yooyu bees dañ koy ñëw di ko gaaral mboolem li nga xamante ne amoon na ko mu ko ciy def di sonn suba ak ngoon gudd ak bëccëg ñaari possibilité nag moo am moom mooy mu dajale alalu àdduna ji téye ko te du ci jariñu wala boog mu di ko utiliser projet yi gën a rëy te fekk du li mu bëgg du ko am abadan subhanallah képp koo xamante ne da ngaa bëgg àdduna mu nekk sa xol te yàlla li nga xamante ne moom lay def comme ni ko yeneen ci bi waxe sallallahu alayhi wa sallam mooy dafay jël àdduna def ko mu mu feesee sa bët maanaam day fexe ba looy yóotu rek mu gën koo jafeñal problème yi fees dellu say bët nga nekk ci say projet suba ngoon ba bëccëg di tërali projet te li nga bëgg yëpp doo ci am li nga xamante ne mooy xaajaatu xaajaatu xaaj ba doo ko ca am yal nañ yàlla sàmm te boole ñu ci ñi nga xamante ne ñoom at la maanaam borom bi subhaanahu wa moom mooy nekk ci seen xol adduna da yàlla da koy teg rek ci seen loxo mu ne la asxara giñ naa ni moo dàq njabar moom adduna min haaruuta ci haaruuta wa ak maaruuta ñaari seytaane yooyu nga xam ne ñoo daan jàngale a njabar ñoom ñi nga xam ne ku man njabar ñoo la ko jàngal yenente bi salallahu alayhi wa sallam dafa wax ne adduna moo leen dàq njabar maanaam moo la dàq wan loo xamante ne parce que njabar lan la njabar mooy da ngay wane loo xamante ne en réalité ci dëgg-dëgg réalité existé wu mooy machi mooy damay taxaw def loo xamante ne nit ki bu ko gisee day defe ne lii am na ndekete loolu amul ma daal di jël masalan ay xobu garab teg ko daa di def loo xamante ne da ngay yaakaar ne lii xaalis la ndekete du xaalis yow sa bët bi laa njabar yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moo dàqa njabar adduna dàqa njabar haaruut ak maaruuta moo tax Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu bi mu giñee ci loolu ba noppi dani qaala wax na daa ki nga xam ne moom mooy aji rammu ji li kullil musnibiina ñëpp ñi nga xamante ne way bàkkaarkat lañ yal nañ yàlla boole ci ñi nga xamante ne dana leen ramm yawmal qiyaama yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dana leen ràmm ci mboolem problème adduna yeeg alaaxira ci barkeem sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne moom moo wax jooju xabibu moom mi nga xam ne mooy soppe yàlla bi alaa waawee alaa ma yëgaloo ma yëgal alaa bàyyil xel lii ma lay wax xubbuhaa gis nga bëgg àdduna sopp ko rasul xataaya mooy jiitu mbooleem bakkaar yi jameeha mbooleem seen nag problème boo gis bàkkaar bu fi nit jug dem ko xamal ni sopp àdduna bëgg affaire àdduna kese maanaam moom mooy li nga xamante ne moom moo ko féete kaw te moom mooy origine bi moo tax mu ne la wayul kii dana sànni adduna adduna gu suufe gii zahral waraa ca gannaaw ak gannaaw labi bu képp koo xam ne dafa xelu adduna daal boo bëggee ma melal la ko ajuzun ab màggat la boo xam ne farukun dafa tongorong dafa dem ba bëñ yi maanaam dafa dem complètement ma màgget la boo xam ne bëñ yi amatul fii siyaa bi boo xam ne dafa nekk ci yére arubatin séet bu bees bu rafet mu ne noonu la àdduna mel maanaam nga xamante ne mi ngi mel ni tey masalan bu fekkente ne sëriñ bi dafa bëgg soxna ñu ne ko ah ñun dey tabaarakallahu am na ndaw fi ñu lay présenté ñu daat ko koy présenté daat ko koy may ñu daat koy yóbbu ndaw si ndekete defar ko solal ko yére yu seet yu bes yu weex yooyu ba pare solal ko ay gants yo xamantene yu wéx la daal di koy duggal nak ci bir néeg ba de nga sa way daal di ñëw nak defe ne am na jabar tabarakallahu commencé jubile bu duggee ba ci bir daal di daal di muri ndaw si rek daal di gis magat mo xamantene dafa tabaram bu ji na dégg maanaam découragement bi nga xamantene mom lay nekké loolu moom mooy melo képp koo xamante ne da topp mbiru àdduna moo tax mu ne xuruuru dunaa woru gi nga xam ne moom la àdduna waroon almaadina ñi nga xam ne ñoom ñoo weesu ci lu jiitu ajibu lu yéeme képp koo xamante ne jàng nga histoire te xam nga li nga xamante ne moom moo xewoon ba ci suñu jamono yi mujj yi subhaanallah xoolal buur yi nga xamante ne ak président yi nga xamante ne ñoom lañu folli taay yi rek ci révolution yi ku leen waxoon ne leen àdduna dina leen trahir nii wallahi duñ ko gëm heure bii daaw rek buñ leen ko waxoon duñ ko gëm xoolal subhanallah ni nga xamante ne noonu la àdduna sacrifier ay génération et des générations fi mu toll nii maanaam képp koo xamante ne xellu na dina yéemu ci lool lool moo tax mun a ajibu lu yéeme la te àdduna sax li ci gën a bon li ci gën a garaaw mooy wa in adxakat gis nga su reeloo aw nit yow man benn bés satu kii xew séef na koo jooyloo bi suratin ci lu gaaw a gaaw a gaaw moo tax mu ne wala xayra nag yiw nekkul fi lazat ci ay bànneex yoo xam ne ba du ginnaaw gi lu mu yàgg-yàgg ak lu bànneex ba rëy rëy la bu ay maanam tàkki tàkki sawara ñoo nekk ci gannaaw xam ngeen ni ji banneex moom yiw nekku ci way alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la ala su fekkente ne xabayiwuloo xel lii ma la nar a kaay ma wax la ko nga bàyyi ko xel mis lu kenn duudul xasdi weru busa baali la man képp koo xam ne yaj moo day dajale adduna adduna adduna gi nga xamante ne dafa suufe weru busa baali nag moom mooy li nga xam ne moom la tubaab di wax vers à soi maanaam mooy mooy mooy mooy mooy vers boobu nga xam ne maanaam ah, déedéet mooy kii defar soie sooy maanaam moom day defar da koy tiise bu ko defaree comme ni lënd yi ni nga xam ne noonu la eh, jargo ñi di defaree lënd kii nag moom mooy defar li nga xam ne mooy soie su ko defaree maanaam da koy defar di ko defar di ko defar ba nekk ci biir nag moom maanaam léegi su nekkee ci biir du ko defaree ba pare moom du ut du ut porte de après fu mu jaar fu génn maanaam moom da koy defar rek après nag mu daal di nekk ci biir bu ko defee day daal di dee foofu ndax affaire bi da koy englobé képp nag koo xamante ne lii sa yitte mooy di dajale àdduna noonu nga parce que fii yi ngay des c'est sûr que mënoo fii jël di yóbbaale dara lépp da nga koy dajale di dajale di dajale fàtte sa bopp ñu di la jay naan lui c'est un bosseur c'est un travaille dix-sept heures par jour il se repose il dort que deux heures de par jour maanaam di ko wax loolu moom <laughs> du comprendre ne fi mu toll aduna war na ko du comprendre ne moom fi mu toll li dajale ni je du ko jariñ dara manam muy dajale rek di tek ñu naan wuy lui tu vois c'est un exemple lui il participe au développement nangam nangam te li nga xamantene mom moom moo xel moy aduna ji buñ fi nekké sama borom subhanahu wa taala dafa ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa binduma jinne ak doomu aadama lu dul pour ñu jaamu ma kon su fekkente ne dañoo nekk fii ci kaw suuf dañ koo war a jaamu loolu moo ñu fi indi dafa fekk rek ne réalité bi mooy nit mënut a nekk ci kaw suuf continuer di dund te du lekk du naan du am fu mu dëkk ak yu demee nekk noonu te loolu noonu il faut nga dem wuti ji loo xamante ne moom lu dagan la loo xamante ne dana tax nga mën a subvenir ci sa besoin yooyu bu fekkoonte ni nit mën na dund sans lek ak konon ton grawul day nek rek di jaamu yalla sans lek sans nan mais comme que lolu mënute ne lolu motax manam mbir mi processus la mais nit ki warul dund pour di liguey pour am alal waye dafa wara out ut alal pour mëna dund bu ko defé nak mu mëna def li nga xamantene mom motax moo tax boroomam wa taala indi ko ci kaw suuf mu ne moo tax nag walit duudi ñeel weer ma len wax sank fii man su fii man su ji ci maanaam rabbam googu muy rabb sooy bi la giñ naa ni tabubu ak alkandem rek moo ca nekk wala tax kon nag bul bokk mi man di bokk ci ñi bul nekk mi man di bokk ci ñi nga xam ne xurra woo ref ne leen min baa di ginnaaw xaflatin ak yëgadi ak sàggante maanaam négligence goo xamante ne daf leen a dal te kay ma yëgal la benn information bu fekkente ne bàyyiwuloo ko xel wa yawmu bis bi nga xamante ne isdihaamu dana te rek rek loo alaalimuna alaalamina mindee fi bis boobaa fii bu bis bu tar la mooy bis bi nga xamante ne dañuy dajale adduna bi yépp ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi ñu teg leen ñu dajale leen nit ñi rek rek loo maanaam ñuy buuxante ndax place bi maanaam dafa xat bis boobu bis bu metti la moo tax mu ne adduna bokk na ci danger yi mu gën a amee mooy qabaihaha yi nga xamante ne ñoom ñooy bon bonam yi tuux fii daf koy nëbb watub di waaye day feeñal maxaasinan ay taar taar maanaam mboolem li mu am ci lu ñaaw daf la koy nëbb moo tax doo gis ku bëgg àdduna ku gis problème yi nekk ci àdduna maanaam ndax lan àdduna da koy nëbb wan ko ne ko affaire yi tu vois ces étages là tu vois waaw naan ko saa waay xoolal boisson yi neex yi nangam nangam xoolal ma xale yu jigéen ñu rafet yi tabarkalla tabarkalla ak yeneen ak yeneen yooyu rek laf koy wan mais du ko wan problème bi nekk ci su fekkente ne loolu la jël def ko priorité ba tax mu toppul li boromam subhaanahu wa taala problème yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw loolu moom adduna du ko ko wan moo tax mu nekkoon moom day nëbb li nga xam ne mooy ay bon bonam te day feeñal ay rafet rafet waaye nag kaay ma wax la benn affaire naswoon aji roccaakoon la aj aji xëccaakoon la di rocci li ma ci lépp loo xam ne mës na koo joxe alxabiba soppeem adduna ku mu jox ndataa da ngay jékki rek dégg mu ne rocc na maanaam rocc mooy la mooy bu koy nangu du ko nangu avec négociation déedéet adduna képp ku mu jox benn affaire ba nga téye ko bu koy jël daf koy jël te da lay moom booy perte say fonction ay say pouvoir ak yu mel noonu tout temps daf lay bett ba pare salu bu aj rikki war kon la maanaam mooy def koy nangoo nangu ba doo deseeti dara dara dara adduna nii lay doxalee ak soppeem xam ngeen i soppe bii baaxul de waay wala tan sa bul fàtte tuula duhri sa giirug dund laatan sa bul fàtte mukk lay latan guddi goo xam ne sabihatuha bëccëg ga bu yegsee fii haa ci moom guddi googu bëccëgam nga yo addu def na lim fii haa ci biir bëcc ci biir bëcc ci biir bëcc ci biir ayib nga def yu bon a bon a bon yoo xamante ne da ngay xëy rek dem nag gars nag commencé génne dossiers yi ana compte yi nga xamante ne moom la amoon sa banque ba ñu xool ko gis ni ndekete lépp ay luubal ana leneen ak leneen lu mu amoon ñu xool gis ni lépp ay luubal la ñu di ko tudd fële nag ce fan nit ka nekk nag bu boobaa moom ci biir armeel ci biir bàmmeel ya malaaka yi nekk fa di ko régler beneen problème foofu am fa mu daal di boole ñaari problème problème bu njëkk bi mooy nit ñi ko fonkoon wegoon ko gis nañ ni ndekete kii du nitu dara ñaareelu problème bi moom mooy problème bi nga xamante ne moom lay am am foofu ak malaaka te ñooñu xam nga seen problème jarul sax ñu ciy dugg alaa waawee axiral anfaasi mujjantali nooyi gi nga xamante ne moom ngay nooyi daawim na nga sax bi fikri yi ci di ko xalam di ko xalaat di ko settantal mu ne zak yi yul xijaa aji ji xel de mal firaaq bis bi nga xam ne moom la war a tàqalikoog nit ñi àdduna jour bi nga xam ne moom lay tàqalikoog àdduna yax yi bu daf koy tiit daf koy ragal fa yaa ayyuhal baani ay yow mi nga xam ne yow aji tabax nga yow yaa ngi nii di tabax mahalla bërëb boo xam ne bërëb diyaafatin gane la bërëb boo xamante ne dañoo ñëw gane la la ne la ah monsieur tu es notre hôte aujourd'hui kaay fii ñu daan lay ganale ci suñu espace bi yow nga dal di ñew tabax commencé tabax muul maanaam mi ngi mel rek tey fii ñu nit ñu invité la fii nga dal di ñew ba pare ci benn kër jambu nga dal di kuma commencé wo ab maçon ci ëlëk sa ñu gis la nga wo maçon di avancé defar ay muul borom kër gi génn ne la wa muul yi moom lu mu doon ki day néna ya ko fi woo mu ne la wa waaw ah muul yi damay tabaxu kër maanaam damay tabax appartement bi ma war a ci kër gi te moom daf la gané donc maanaam lii moom mooy moom la joxe exemple ki nga xam ne àdduna maanaam léppam daf koo basé ba pare maanaam nekk rek maanaam ci àdduna rek yittewoo ko mu ne kon yow mi nga xamante ne yow yaay tabax bërëb boo xamante ne bërëb bu la alam taala xanaa xamoo ne annal jalaa naka laxas dem wuti ji àllaaxira xaribu jege na satxbiruka dana la xel seef na laa xabaare al ayaamu bis na annaka naka yow kat laa ebun ci fo rek ndeke nga dëkk ka annaka daga melne ne yow yaa haadal yow mi nga xamne ne yow ku beew ki nga sali bu dañ la ricc bu nangu lepp lo xamantene ne nga ko ci yiw bu warona nek ci sa xol la abru ko seedaloo na la maa lay giñloo ci sa dundu nga baye xel ci sa dundu ndax xamal ni ma yuux ni du al maghani kom ya alal yu bari ya du jarign anil fata lif camsa iza damma bu fekente ne tap na dajelena aw faalal murib cëri gi nga xamante ne moo fi nekkoon rek di wut ay affaire adduna di dajale rek du ko jariñ dara dara bu fekkente ne maanaam suuf si maanaam tari bu suuf si dajale na cër yi maanaam ñu jël koo takk ko dugal ko ci biir suuf nga xam ne léegi fépp suufa ko wër boobaa alal yi nga xamante ne moom la nekke woon fii moom la amee woon fii adduna du ko jariñ dara kon nag li nga xam ne daal mooy li am njariñ mooy jëlal sa xol nga jox ko sa borom subhaanahu wa taala te bu affaire adduna yi tere mukk mukk nga topp pour nga def sa jaamu yàlla affaire adduna yi bu mu la yitteel ba tax li nga xamante ne mooy yu xaraam yi nga di ko dugg di ci dem fa yaa way xa i way naa ci toskere faanin koo xamante ne aji jeex la koo xamante ne maanaam dundam dafa gàtt kaana mu nekk koo xam ne yastaddu day loo ci faani yan koo xam ne day jeex ne moom tamassak xam nga li nga war a def mooy da ngaa war a mooy bi baaxin ci ki nga xam ne mooy aji sax fi mooy buur yàlla subhaanahu wa taala moom de lay sa déet moom anka wallif la yow ya yi bu di aji fàddu maanaam moom du la fàddu mukk mukk mukk wa odda te nga lim minal amwaat ci way deeñi naf saka sa bopp naa bi dan sa mbir nekk aji sànni wara aka ci sa ginnaaw dunya àdduna te bu ko defee na tuni bu nga daal di wéeru jël sa xol yépp wéeru ko lil ilaahi ñeen buur yàlla subhaanahu wa taala fa yaa ajaban ewa waay kaay leen woole sama fa ya jaban ewa waay man ñi de yéemu man ci ki nga xamantene ya yahrabu mom mi ngi daw annara tak tak na iman mbiram nek aji nelaw wa man ak kep ko xamne yaqlubu ibu mi ngi jannati al janna wo wo pek mom laibu manam ci fo rek la dekk manam aji fo la subhanallah xolal tay bu fekkonte ne wax ne batima bi tak tak daf am incendie daf fee am ñu daal la koy yëgal yow nga tëdd di nelaw rek ànd ak ne xam nga ni fii tàkk-tàkk moo fi ne ñu ne la sa waay tàkk bi ba incendie eh, eh, yu amee rek nga naan non mais garaawul xaaral ma nelawaat tuuti maanaam kooku xam ngeen ni mi ngi maanaam ci risque yu garaaw la ne maanaam mu ne yéemu naa ci waa waajooju nga xamante ne nag tàkk-tàkku àllaaxira moo ko yot ba pare bàyyiwu ko xel mu tëdd di nelaw te nangul topp boroomam subhaanahu wa ta'ala bu ñu waxee mu naan waaye c'est nag xam nga da ngay waaru dëkk bi dangay ngay waaru bu ñu waxee mu naan c'est que adduna la ñu ne eh, dañuy def yëfi adduna waaw baax na defal yëfi adduna waaye li nga xamante ne moom nga war a xam moom mooy adduna bërëbu nattukaay rek la maanaam da nga fiy laxas war a dem allaaxira bu fekkente ne nag nit ki dafa dekkoon di nelaw ba jaamuwul boroomam jalla jalaalu bu boobaa li nga xam ne moom moo koy yot moom mooy sawara waaye mu ne tamit yéemu na ci nga ko xamante ne maanaam moom aljanna la bëgg ak aljanna ni mu jafe xoolal subhaanallah tey buñ la bëggoon a wax ne la yow tey maanaam milliardaire nga xam ngeen di nekk milliardaire xam ngeen di yombul est-ce que maanaam milliardaire xam ngeen di yombul de nit ki nga ak àdduna ni mu neexee te du àjjana mu neexee te du jeex yow nga bëgg ko nga ne da ngaa war di fo rek ba pour am al aljana loolu xam ngeen ni yanuwul maana moo tax mu ne kon nag kafa doy na sëkk aliman aji xam doy na nit ci mu xam ne an na turaba ne ko suuf ya ba muhu dana ko tàpp maanaam kooku day bu fekkente ne ku xam loolu képp koo xam ne xam na loolu kafa dana ko doy saraan ndox mu ñuul saraban aw naanu maanaam mooy ndox bu simple bi rek doon na ko doy lu mu war a naane wal fanaa yére yoo xamante ne daal yére yu yam la rek donte nekkul yu rafet lool sax maanaam waaye daal yu mën a sol la rek yooyu doon na ko doy ngir mu mën koo sol wax siibu ak lalu dénk doy na ko waaye lalu un million moom loolu ak ay xaw ma nu koy tudde coiffure coiffeuse coiffeuse ak yu demee ni que noonu daanaka nit ki daanaka xam ngeen ni doyewu ko dara waaye nag tekkiwul ne boo ko amee dañu lay ŋàññi waaye li muy tekki mooy su fekkente ne am nga ko jëlal tëdd ci te sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala waaye nag soo ko amul bul fi nekk di attristé wu foo toll naan surtout tët man c'est que gars yi am nañu kii te man aw ma aw ma ma ko pës ak tamit di gis bu kenn ki jëndee maanaam euh, euh, euh, télé boobu noonu nga xam ne day pala écran pala bi bu ko kenn jëndee rek nga daal ni man faw ma wuti ji 1000 euros nangam pour jëndi ji ko déedéet loolu maanaam nekkul nekkul objectif subhanallah ana lan ngay wax sa mbokk bi nga xamante ne toog na ñaari semaine yoo xamante ne dafa tegaloo amul dépense wala boog mu feebar te amul luñ ko faje lan nga koy wax bu fekkente ne dafa yëg ne da jënd ab écran boo xamante ne mille trois cents euros nga ko jënde loolu loo ko tontu ah lan ngay wax ko subhanallah yal nañu yàlla sàmm la moo tax mu ne nag kon nag laziizu taamin maanaam laziizu taamin ñam wu neex wal mula ak yére yu rafet a rafet te yànj te xumb wan wa umatin ak tamit maanaam yaram wu liis yii yëpp benn bu ci nekk kaay moo wax la fa mu jëm bu dee laziizu taamin ñam wi nga xamante ne ñam wu neex la saya ubu koku de xel seef naa dellu li ric ci sobe la jom de yamu ñamu neex mu moom ci sobe rek wal mu laa yére wo xamantene dafa yandi mom li xarqin saya ubu xel seef naa dellu ci xarqin ci xote ko wa umatin yaram wo xamantene nu umatin nar yaram wulis mom moom saya ubu dana dem lil bala ci jek jek rek manam commencé ras ngay diwoy produit muy ras ngay fikiru muy ras nga dem ci médecin muy ras nga chirurgie muy ras lo def mu ras ala kulli xaalin foofu rek lu jëm kon nak wa yawma te bis bi nga xamne ya firru dana ca daw al mar'u chamsa an kulli saahibin walit képp ko xamantene ne àndandoom la comme ni ko qur'an waxe bim nan yawma yafirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه mu ne bis lay doon boo xamante ne yawmal qiyaamati soo ko xamul bis la doon boo xam ne yafirru dana ca jaw almar u camsa maanaam nit ki dana ca jaw min axihi ci ay mbokkam ay frère am wa saaxibatihi maanaam àndandoom bu jigéen mooy soxnaam maanaam dana ko daw maanaam àndandoom bu jigéen nag la wax mën naa nekk soxnaam mën naa nekk comme subhaanallah li nga xamante ne moo tàmbalee xew ci jamono ji mooy koo xam ne sab nekkaale rek lay doon ak sab dëkkaale wa saahibatihi kon wa banihi ak i doomam wa fas yi ah wa saahibatihi wa banihi li kulli mri'in lu tax ñuy dawante noonu ndax li kulli mri'in nit ku nekk bis boobu minhum ci ñoom sha'nuhu ay mbiram yux nii yi da koy doy sëkk sëkk sëkk problème jarul mu ciy teg problème bu keneen ku mu gis ci ñooñu day defe ne dafa am ay tiyaaba yu mu bëgg ci moom wala daa bëgg boog ay bakkaaram yu mu war a jële ci moom ngir jox ko ko te kom ku ne nag sa problème da lay doy sëkk li nga xamante ne daal moom mu ne bis boobu kafa doy na sëkk waa azan di aju raga waaraate lil ghafilina ñëpp ñëpp képp koo xam ne way yëgadi nga way sàggan nga te yax yi bu bis la boo xamante ne day raglu te dafa tiitalaate fa ya aliman e yow mi nga xamne xam nga li mala jotta wax legi nak walam takute ne ko amilan di aju jëfe alam ya mi xay kay mu wax la li sama borom waxon subhanahu wa taala ndax dafa wax ne alam ya ni xana jotul nak an tax te mu ragal al alqulubu xol yi alalima yàlla mi nga xamantene mom moy ki xam lépp araaka gis na la tarwu mu ngay sàkku mala alal wal jaha ak daraja te sàkk wuloo ko ngir bëgg cee jaamu yàlla de di wut alal ak daraja naam baax na ndax kenn du ko ŋàññi ngir jëmmam waaye deefu ko tàggit ngir jëmmam li nga xamante ne moom lañu ñu koy doyee mooy ngir liggéeyal ci lu war a tax diine yàlla ji avancé li nga xamante ne moom moo war a tax mooy def ci loo xamante ne danga ca mën a amee ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala waaye nag yow damaa gis ne boo koy wut rifaatan yëkkatiku rek moo tax nga koy wut ak daraja ngi yëkkati ko ci kaw nit ñi ñu di la tudd naan monsieur diw di la tàccu ak yu demee ki noonu loolu rek moom moo tax nga di ko mu ne kaay moo wax la ne wa ma hakaza melul woon nii ahlul ola wëram yëkkatiku yë ñi nga xamante ne dañoo yëkkati woon yëkkatiku woon daraja borom maqaama yu kawe ya ñu woon nii de wa aniiboo ey eh waay dellu leen ci seen borom subhanahu wa taala ni ko alquran waxe ndax dane wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al azaba baxtatan wa antum la tash'urun e waay dellu leen ngeen jébbalu ci borom subhanahu wa taala lu jiitu mbugal di ñëw ci mbetteel te yéen day fekk ne doo leen ko yëg araaka maa ngi lay gis daal yow borom xam-xam bii siraajan nga nekk koo xamante ne aji maanaam maanaam aw sondeel nga boo xam ne yaxriku mi ngi lakk ad dahra diiru jamono nafsahu boppam muniran mbiram nekk aji leeral li xayrin ñeel keneen xam ngeen ni moos dem ba jàng ba xam xam ngeen ni moos dem ba fexe ba xam ni lii moo jaadu ba pare toog rek naan adduna daal amul solo ba pare naan ndeysaan adduna du dara naan cey seytaane xam ngeen ni kër waru koo topp ba noppi yow ci loolu nga dëkk xam ngeen ni yow kon gis naa la nga nekk koo xamante ne dangaa nekk ab sondeel boo xam ne dangay lakk sa bopp ba pare di leeral keneen inna zaakati xam ngeen ni lii maxiibu ak maanaam ak yeres la lii de ak yaakaar gu tas la a fii kulli yawmin mbaat dangaa nekk koo xamante ne fii kulli yawmin ci bis bu jot taamuru da nga digal an naasa nit ñi naas yan say mbir nekk aji fàttali nafsika ñeel sa bopp gaa xam ngeen ni lii aarul ak gàcce la alayka boo xamante ne nekk na ci yow yaayibu te dana la ayibal boo demee ci sa kanamu boroom subhaanahu wa taala mu daan ne la waa yow est-ce que nga wax kenn ne ko àdduna amul solo boobaa nga ni ko waaw est-ce que nga wax kenn ne ko seytaane baaxul bu ko defee nga ni ko waaw est-ce wax kenn ne ko àdduna ak bànneexu bakkan képp ku leen topp ci mus la la jëme bu ko defee nga ni ko waaw mu na la te pourtant yow loolu nga doon conseiller toppoo ko kon xam ngeen ni lii doy na la gàcce te doy na la ayibal boo taxawee sa kanamu borom subhaanahu wa taala moo tax mu ne la wax in bu fekkente ne amalan waxa maanaam waxambaane ba ñuy waxee ba ñuy wax xam-xam ankaxta da kaa séele xel man wala boog maanaam njagamaar ba wax xam jëfe ankaxta da nga kaa séele xel man waxambaane bi nga xam ne moom lañoo wax xam-xam nga daal leen di séele ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ay jeune ba pare maanaam am doole muy xam-xam ak jëfe ak ak xam mu ne te naasala danañu askanale ñoom ñaar bi mulkin ci nguur mu daamin boo xamante ne day sax laysa du nekk ci biir nguur laysa du nekk fii ci nguur goo ko ay xare yoo xamante ne suba ngoon guddee ba ca ña nga naan ña ngay ay coup d'état ak yooyu wala boog ñu jekki-jekki ñu daal di menacer sa turon loolu du am képp koo xamante ne dafa am xam-xam képp koo xamantene dafa am xam-xam ba noppi di jëfi xam-xamam kenn munu koo teree tedd adduna ak Allah yal nañu yàlla boole ci ñi nga xamantene ne dañuy sàkku xam-xam nañ ko war a sàkkoo ak fañ ko war a sàkkoo ba noppi ñu jëfe ko ni nga xamantene ne moom lay dëppoo ngërëmal borom bi subhanahu wa taala bu ko defee mu daal di ñuy jox nguur adduna ak allaxira goo xamante ne maanaam du am benn perturbation wa illaa budul loolu rek su fekkee da ngaa xam kese fa inna naxla li wér bu wóor mooy garabu tàndarma day laysat nekkul bi naa di aji jariñe isa lam bu fekkente ne yàq bu isa bu fekkente ne lam yakul nekkul fii haa ci garab googa ak simaaru ay meññeef yoo xam ne tati bu dafay neex loolu moom mooy lan xam ngeen ni garabu tàndarma moom bu fekkente ne ñu ngi naan garab bu baax la mbaa di ko tagg xam ngeen ni njoolaay wa taxul ñuy wax xam ngeen ni tamit moom amul ker bu ñu mën a kerloo garabu tàndarma moom benn njariñ rekk la am mooy day produire ay ñam yu neex loolu la xam-xam di jariñ xam-xam moom njëriñ njariñ la am mooy jëfi buñ demee ba jëfi amatu fi xam-xam bi amatul njariñ loolu moo tax mu ne alayka kon maa ngi lay dénk at tuqaa ragal yàlla ndax loolu foofu la ñuy tàmbalee ci jëf innal xuyuura li wér ba wóor mooy yiw yi jamiaha mboolem seen tatam mën a xaa lamboo na ko moom ragal yàlla moo ko lamboo na taqiyati li wér boor mooy aji ragal ji yàlla moom najibun ku tedd la koo xamante ne ku am teranga la waajile moo tax raaya kase yi nga xam ne moom la la yàlla sàmmloo nag moo xam sa njaboot la moo xam ñi nga xamante ne ñoom ñooy bàyyi ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa njaboot bi ak ñi nga xamantene ne ñoom ñooy sa cër yi nga xamantene ne ñoom ñooy sa cëru yaram yi yooyu moom la la yàlla sàmmuloo fatrud na nga leen dàq an maharimi wëllif lépp loo xam ne xaraamal na ko rabbina suñu borom bi min saat bi min saat ci ci ci ci maanaam ci tumuk taqwa ragal yàlla mooy bateau pèlerin bi nga leen di sàmmee mooy ragal yàlla yëg si bu ko defee da fay min ci yow ma mujj aji nangu ji jëf ak aji nangu ji ñaan alaa waawee alaa yëgoo ma la alaa boo bàyyiwul xel lii ma lay wax kaay ma fàttali la ko inna xayra zaadi gën ji mag yóbbal bi nit mën a yóbbale àdduna ak allaaxira taqwa mooy ragal ilaahi naa buur yàlla suñu borom wala tax sa bu ragal xayrallaahi ku dul yàlla foofu ndax moom buur yàlla xasibu moom mooy ki nga xamante ne doy na jaam yi te moom moo leen di caytu maanaam moom mooy auditer seeni mbir walaw laa ay waaye budul woon sukuunu maanaam sëgg gi nga xam ne moom la sëgg al aalamiina mindeef yi li xayrihi ci keneen ku dul yàlla ra'awhu konoon toon doon nañ ko gis ayaa nañ ci njéebéer danañ jàkkaarloog moom wal ilaahu ndax buur yàlla xaribu ku jege la li tere nit ñi gis yàlla xam ngeen lan laa maanaam mooy ne dañoo préoccupé wu ci leneen lu dul yàlla bis bu fekkoon te ne nak préoccupé wuñu won ci leneen dudul dul yàlla konoon don don nañ gis yàlla ndax yàlla nee yàlla huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid wala boog wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ñun ñoko gëna jégué a jege jaam bi buumu xolam motax mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani bu la sa jaam yi laajee anam may samay mbir nee leen man yàlla dama jegeñ maanaam jegeñ googu nag bokkul ak maanaam du jegeñu liya waaye jegeñ la ci maanaam ne dafa jege jaam yi ci maqaama ak leneen moo tax mu ne alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la comme yàlla nag daf laa jegeñ axlis kon na nga sellal al amaala jëf yi lépp looy jëf sellal ko te yàlla rek tax waalam te na nga xam ne bi na annahoo naka moom buur yàlla xayuurun aji fiir la fala yardaa du gërëm xulubu xol yoo xamante ne machu al xulubu xol yoo xam ne tachubu dafa jaxasoo ak leneen loo xamante ne bokku tëg wut ngërëmal borom bi subhanahu wa ta'ala loolu moo tax mu ne wala tarda bul gërëm antur faati mu fekk la moom yàlla mu tey an ngay nekk aji top li xayrihi ñeel keneen wa zalika gis nga loolu yastax yi dana ko kersa woo fami gor aw sang bo xamne aribu am ku xellu la atashrikuhu ma du dang koy bokale mom yàlla xayran ak kenen walam yakkute nekul won hadiran di aji tew la day fa mom aribu ken la da xalqil wujudi binduk minde fi amin baad ginnaw bi nga xamantena khalq xalq ak binduk ak zaati jëmm yë wal fi'li ak jëf rabbuna suñu borom yuma fi lu mom leef la koy melale ak kenen mom sali mom la koy melale moom yàlla mi nga xam ne mooy aafil mujrimiina mooy aji jéggale way jombu ñaa jaamu way jomba jaamu mooy criminel maanaam ki nga xamante ne ñoom danoo bari bàkkaar nekk ay criminel ndax ñoom danañu melale maanaam ki xam ne mooleen di jéggal ginnaaw rawatina moom moo leen bind bind jëmm yi bind seen jëf yi ndax kooku war ref na koo melale keneen loolu de ki koy def salibu mooy ki nga xamante ne dafa daaju ci jiw alaa waawee aloo yëgal ma yëgal la yëgloo ma yëgal la ahsin na nga rafetal al amaala jëf yi waalam te na nga xam ne bi an na maa ci li am ba des mooy muti'un bihi képp koo xamante ne ku topp yàlla la lam yàtt te dikkewul bihi ba tey ci moom sellal ko huwa kooku la wu folo dëkk xam ngeen ni moos koo xamante ne day ne day topp yàlla ba pare du sellal jëf yi te yàlla rekk ko kooku xamal ne daa nekk di fo kaay ma jox la exemple jalisu képp koo xam ne da ngaa jotaayoo maliku ak président de la république képp koo xam ne jalisu danga ngaa jotaayoo maliku ak buur lam yakun te nekkul <coughs> mutaaddiban di aji tegginu xam ngeen kooku luñ koy defa ku laaj président audience ba pare ñëw fa nekk fay reewantooka di def yëf yu doy waar xam ngeen luñ koy defa taridun dañ koy dàq zalilun dañ koy toroxal saahirun déem na ko tuutal wax a jibu te dañ ko yiir ci li nga xamante ne moo taxoon mu ñëw nit ki laaj président audience ba pare nekk fay reewantoo ko def yóbbu yoo xam ne yoob yu baa doole la bu boobaa dañ leen koy dàq déjà loolu mooy première ñaareel ba mooy daañ ko toroxal daañ ko tuutal ba pare nag dañ naan mais xool leen bu baax ana lan la fi doon wut si ngeen fexe ba bu mu ko amati lii mooy li nga xamante ne moom mooy fayo waaw kon ana lan ngay xalaat ci ki nga xam ne dafa taxaw jàkkaarloog boroomam subhaanahu wa taala te du sellal jëfam yàlla te xam na ni yàlla mi ngi jàkkaarloog moom saa su ne te mi ngi gis li nga xamante ne moom lay def saa su ne moo tax alaa waawee alaa yogoo ma yëgal la raqib na nga fuglu almawla buur bi bi nga xamante ne mooy kilifa gi almuhaymin mi nga xam ne moom mooy may jàmm nit ñi te moom moo sax ci di leen si royee sayyidi kay sama sang fa nee ma a baax fa nee ma est mu teewoon képp koo xamante ne aji topp na lil xabiiri ñeel aji dañ ci kumpa yàlla mi nga xamante ne amul dara lu ko kooku noonu képp ku ko topp xamal ni maanaam kooku ku baax la maanaam ràqu bu ba pare nekk nag doo xamante ne da ngay fuglu buur yàlla borom bi subhaanahu wa fuglu nag mooy être vigilant léegi nag kaay ma jox la ay exemple yoo xamante ne war naa tax nga jaamu yàlla nga jublu ci borom bi subhaanahu wa taala jël sa xol bi jox ko ko signal ko ko ba noppi nag jël si maanaam lépp looy wut ci àdduna mu bañ a nekk ci xol bi donte nekk na ci cër yi mu ne kon nag ne donte nekk na ci poche bi donte nekk na ci banque ba donte nekk na ci loxo yi fa in tas ali bu fekkente ne dangay laaj laaj adduniyaa adduna gu suufe gi ma jox la ci ay exemple yu bari yoo xamante ne mën nga koo xam ma njëkkee ci ne fa inna li bi wër ba wër mooy sururaha mbégteem yaudu day dellu nekk adaban mbugal boo xam ne yattaqi dana ko teet at yi bu képp koo xam ne tegginu na fa in tas al laaj ad dunya adduna ba tey fa inna li bi wër ba wër mooy umuuraha mbiru adduna yépp ka adghaasi ahlaamin kéem way jax sooy gént la badat yoo xam ne dafa tàmbali watax yi bu ba noppi fàddu gis nga tey sooy fàttaliku li nga doon def démb maanaam ceebu jën bi nga réeree biig tey soo ko doon fàttaliku ak li nga géntoon biig di ko lekk fàttaliku gi moom benn la loolu moo tax maanaam àdduna mbirum yëpp noonu la demee li ngay fàtt booy fàttaliku li nga defoon démb ak bi nga gént démb li nga gént démb boo koy fàttaliku moom ci sam xel ni muy ñëwaate moom benn la moom amul benn différence bànneex ba nga ca amoon lépp dem na moo tax suñu boor maanaam loolu moo tax mu bata bàyyi xel mu ne nag kon fa intas alu booy fàttali la addunyaa adduna bu fekkente ne danga nga laaj addunyaa adduna kaay ma jox la beneen wax ci mbiru adduna fa inna li wér boo wóor mooy xalaala xaala ca dagan xisaabun ak caytu la wa xabsun aku téew la maanaam caytu moom mooy dañ lay auditer ci lépp lu dagam ci mbirum àdduna niki noonu bu fekkente ne maanaam ah, maanaam dañ la ciy mettre le temps que ñu lay ñu lay régler aussi boobu di auditer li nga xamante ne moom nga nekkee woon ci àdduna tamit maanaam def na la maanaam xabsun def na la téye mettre la garde à vue dañ lay def garde à vue pour lan le temps que ñuy régler affaire bi waaye loolu mooy li dagan li xaraam nag moom dana ko wax léegi wal xaraamu li xaraam moom yooyu yëpp du ci am procès amu ci lépp bu mbugal la yal nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne seen am am yi day dagante bu ñu am dara loo xam ne lu xaraam la fa in tas al boo laajee adduna fa inna li wér bu wóor mooy wasaanaha mandaxeem maanaam mooy li muy peese boo ko tegee li poids bi mu yor axaf moo gën a woyof janaaxan ci laaf lil ba'udi ñeel ñeel yoo xalu boo xam ne dañ koo dog xam ngeen ni yoo ci jëmmi boppam diisul bu ñu jëlee eh, laaf gi gën naa woyof encore bu ñu fekkente ne dañ koo dagg nag moom day gën a woyofati encore maanaam laaf boobu bu ñu xoolee adduna ni muy peese ci yàlla poids bi mu am maanaam moo gën a woyof loolu loolu moo tax yeneen yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne képp koo xamee maanaam adduna su fekkoonte ne am na ci poids ca yàlla considération bi mu ko jox bu fokkante ne mel na ne laafug yoo konontoon xam leen leen yéefir du fi am guuxu ndox bu mu naan waaye bi nga xamante ne kuy yéefir kuy jullit nit ñu baax ñi ak nit ñu bon ñëpp mën nañoo am alalu adduna loolu mooy wane ne amul benn considération bu ko yàlla jox kon nag fa in tax al bu fekkente ne da ngay laat adduna adduna fa inna li wér boobu mooy la lazisa xaal la ca neex ba neex ya masubun dafa dañ koo cuube dañ koo jaxaseeg bi durrin cig lor wa bugsin ak weñso wal balaa ak nattu weñso nag moom mooy ab force maanaam force suprême bu tar maanaam lu diis a diis a diis lu metti lépp loo xamante ne adduna la lu neex faaw mu ànd ak ay waay bu dul woon nangam mbir mi de neexoon na ba noppi cëy bu dul woon nangam nangam rek a ko yàq wala ay bu fi nangam bokkoon ay waay tey tey bu fekkoon nangam xew maanaam loolu laa bu da mu am ci àdduna moo tax lépp loo xam ne bànneexu àdduna la laa bu loolu am ci kon nag fa kay fa ana naka lay nekkee alfarxu mbégte goo xam ne dañ koy jubilé wal mawtu te dee mun zarun mi ngi mun nii di ñu xaar wa min baadu te ginnaaw dee ahwaalu rada ay tiitaange toroxtaange wakurubin ak i jafe-jafe ñi ki problème ña nga fa nit ki ginnaaw dee am na loo xamante ne ma ngi ko fay xaar te xamul ba xam problème yooy dana ko ca dal waaw wala moom mooy jëf yi mu doon jëf fii ndax am na lu ci yàlla nangu waaw wala déet ndax jëf yi mu doon jëf fii amul loo xamante ne mooy yàlla la boo xam ne yàlla dana ko ci pinee waaw wala déet ndax xàq yi nga xamante ne moo nekkoon ci digganteem ak boroomam subhaanahu bëri na ci loo xamante ne matalu ko te xamul ba xam loolu yàlla dana ko ci tenir rigueur waaw wala déet te bu ko ci tenir rigueur laa bu dem mbugal ko duma ko duma yu metti yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw mu ndax tiitaange ya xew yawmal qiyaama ak bàmmeel ni mu xatee ak problème ya ca ne ak malaaka yi nga xam ne dañoo war a ñëw laaj nit ki ak rek yi nga xamante ne ñoom ñoo fa am yooyu yëpp nekk ay problème nit ki wara a ak maanaam maanaam xam ne loolooy xew ba noppi xelam di dal mu nekk fi di jubilé loolu xam ngeen ni yanuwul maana alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la alaa boo bàyyiwu xel li nga xamante ne moom laa lay wax kay fii ma wax la ko nga bàyyi ko xel fattaxis haa boo bëggee mucc daal jàppe ko moom àdduna ma baran aw pong aw jàlluwaay rek a biran boo xam ne aji jaar nga bi haa ci moom maanaam pont boo xamante ne moom nga war a jaar comme ni yeneen ci bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam li mu waxoon abdullah ibnu umar ibnu alxataabi radiallahu taala anha bimu naan kun fi kun kun fi dunya ka annaka uh, garibun aw abiru sabil maanaam nekkal ci adduna mel ni koo xamante ne ab étranger nga bu war a dellu léegi nekkal ci adduna comme koo xamante ne da ngaa war a jaar ci pont moo tax wala amiran bul ko def dëkkuwaay de maanaam tey bu fekkente ne am pont tey masalan pont yi nekk fii nii ci ci ci Rhône bi wala boog ci bi boo demee ba foofa saa waaye commencé defar say birig di tabax boobaa oto yi buñ la rombee lu ñu lay def xam ngeen ne danañu la rajaxe ba noppi nag ñu boole ci nag teg la ay permis bu fekkente ni fekku la nga dee ba pare maanaam moo tax àdduna tamit bul ko def kon dëkku waaye def ko rek pom boo war a jaar waalam te na nga xam ne bi an naka nekk yow li wér bu woon mooy xar bu fii gan rek nga fi dang feetum da ngay delluwaat léegi kaay mo wax la aduna bo xamul ni mu mel ni mala la wax lépp ci aduna boko xamul ma wax la leneen kafaajiratin kiyam ak jigen ju say say la tak a bo xamantene day taw di ngal ri jalat ay góor daat bu mu mu len di woo ilaa baytihaa ci bir negam ba wo ye nak te gis nga bu ñu ñewé xam nga lu muy defa xalu bu day daal di kon la ar riqaaba baat ya bu fekkentene xamulo aduna ni la mel ni muy piégé nit ñi soo bëggee ma jox la ci exemple boo xam ne danga nga koy bàyyi ci sa xel saa su ne nga di ko xoolee noonu mooy mi ngi mel ni ab jigéen boo xam ne dafa saay-saay te sàggan boo xamante ne li nga xamante ne moom la dëkke mooy day solu maanaam maquillage daal di sol yu gàtt ba pare daal di ñëw nag daal di taxaw ci kanam bu taxawee ci kanamu mbedd bi góor góor ko rek mu woola la daal di lay piis sama càmmiñ nangam nangam daal di lay woo daan ni yow danga maa neex wala yu demee noonu maanaam daal wax la wax yoo xam ne daal sa xol bi daal dana wëlbatiku jeex gi jëm ci ndaw bu la woowee ba campagne la nag daal lay ñëw indi la ci biir néeg bi mais ba nga defee ne nag léegi nag war ngaa nekk ci yu bon ya nga xam ne moom nga war a ne mu daal di jël rek jaasi ji rek dagg sa baat daal di dellu ci keneen daal di dem wuti ci keneen ku mu def ni mu la def yow lii la àdduna mel ñi mu fi mës jay ñëpp sacrifié na leen adduna noonu lay doxale moo tax kacaara bi kéem kaay ma jox la beneen exemple boo bëggee xam dëgg-dëgg exemple lu adduna kacaara bi kéem aji nam ma naan la maa albahri ndoxum géej gi man képp koo xam ne xat dëgg dëgg yarumuha moom mooy ci nam adduna ki nga xamante ne adduna moo ko yitteel te adduna la bëgg kooku mi ngi mel ni ki nga xamante ne dafay bëgg naan ndoxum géej faxul la tuhu marum xóndoo ñëm nga tes daadu day yokk woowoo te moom sarubun mi ngi sax dàkk ci di naan rek ki nga xamante ne dafa am bëgg àdduna nga xamante ne maanaam ndoxum maanaam maanaam kii ba kii naan ndoxum géej gis ngeen ni mu mel koo xamante ne dafa mar ndoxum géej xam ngeen ni du faru mar du fa ju mar mukk de moom dafa wex xat maanaam nit ki nag jàpp ndox mi naan rek di naan di naan du mandi maanaam biir bi fees dellu ñu tuy te fekk marwaa ngi gën a tar rawatina bu nekkee ci tàngoor wu tar wu mel ne fan yee nga xam ne moom dañu romboon moo tax xasiirun lu gàtt la moom adduna waaye yaraa gis na ko moom adduna alxaafiluuna way yëgadi ña nga xamante ne ñoom dañoo yëgadi ba pare sàggan ñoom dañoo gis adduna mu nekk loo xamante ne taw yi la tan lu yàgg la wama hiya temelul woon te moom me nekkul moom adduna illaa lam xatun dul ak géndeeku wa xurubu ak fàddu dafa mel tey rek aw melax wu ne ray nga xool ko mu rafet waaye nag moment bi ñu ko amuloo sax temps pour contempler lax bi fekk dem na fàddu na jeex na àdduna noonu la mel moo tax nettali nañ ni yeneen ci yàlla noox ala nabiyina alayhi afdalu bi nga xamante ne dafa nekk maanaam dafa génn àdduna malaaka yi dañ ni ko ah yow nag léegi yàgg àdduna ndax def nga fi junniy at léegi dañ laa buggoon a laaj ana nan la àdduna mel mu daal ni gis nga ah ñun ana la àdduna mel mën nga ñu koy jox benn description quand même bu fiable nee na mu daal ne eh gis nga ni ma fa def xam nga nu mu toll la tey li ngeen mooy laaj mi ngi mel ni tey ñu daal di jël benn néeg boo xamante ne dafa am ñaari buntu buntu fee ci kanam ak buntu ci ginnaaw ñu daal di lay dàq ñu dàq waaye benn waaye boo xam ne dañ ko bëgg a jàpp te buñ ko jàppee da ko tëral ay pexe maanaam daañ ko musibaal ñu dàq ko mu daal di daw dugg ci benn bunt bi fël génnee ci beneen bunt bi mu génn ñu laaj ko ana lan la néeg bi mel nga décrire ñu ko maanaam ki nga xamante ne maanaam man noonu la mel te tamit te loolu képp ku nekk xam na ne adduna daanaka noonu la mel te sax noonu la mel ndax bu fekkente ne nit ki maanaam kenn ku ci nekk xam ne ne buñ ko tegee tey ne ko dañoo bëgg nga wax ñu réew mu ne la fa ne mënul a juréel réew mu ne la fa ne xattaa kër dëkkandoom doomu mënul rek wax lan la fa ne ci kaw loolu kon maanaam moom ay am amam dafa néew ci àdduna ni ci noonu li bëtam teegu sax ci àdduna dafa néew moo tax mu ne kon nag axi yow sama mbokk li ma lay digal mooy faj tahit na nga yulli sa dayak coono na nga góorgóorlu fil yow mi ci bisu tay jii segam yàlla may na la chance nga bokkan bi ñi nga xam ne ñoo ngi dundali ci kon na nga góorgóorlu nga yittewoo jaamu sa borom subhanahu wa taala wal am su ndax ëllëg faa itun aji faat la day dem de fa ëllëg faa itun aji faat la maanaam wala am su démb bokk faa itun aji faat la maanaam démb jeex na mënatoo koo rattraper wa fii xadinaa te nekk na ci suñu ëllëg la xayubu jiñ naa ne ay kumpa yu baree bare bare nekk na ci yaasal wanaa yow aji doyadi ji yow boroom ak doyadi ji xalilun lu néew la moom àdduna ba pare baqaa mu des min xaaj ci moom àdduna buñ ko bàyyi woon noonu rek dafa néew te li ci des alxalilu lu gën a néew des na ca walaw dara ay bu xamoon ma bu xamoon maxabbataha ak mujjëm man raamaha ke nga xamante ne moom mooy sàkk mbirum àdduna lay ubu gin naa ni dana dellu ci borom bi subhanahu wa taala yafirru dana daw ilal mawla jëm ci buur bi nga xam ne mooy kilifa gi subhanahu wa taala kama kem ni nga xam ne qaala noonu la waxee rabbuna suñu borom ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ne fafirru ay way daw leen ilallahi jëm ci buur yàlla fafirru ilallahi inna lahu inni lakum minhu nadhirun mubin loolu la sama borom subhanahu wa wax nee na daw leen jëm ci yàlla moom mi nga xam ne mooy alqaribi aji jegeñ nit ñi moom mooy ki nga xamante ne dafa jegeñ jaam ñi wa ajiboo wuy leen wooteeg yàlla moom adduna kaay moo wax la ilan naari jëm ci tàkk-tàkki sawara jëm ci safara rek lay yóbbee maa di ànd ak kulli ma kullil muhibbi képp koo ne soppeem la masiruha moom mooy mu jëm moom adduna li daalika lii nag moom moo tax al aaqiluuna way xellu yi harubu hurubu aji dawaakoon lañu an xaa wëlif adduna mboolem ñi nga xamante ne dañoo am xel dañuy daw adduna parce que xam nañu ne maanaam adduna moom soppeem bi daf leen di jël boor yóbbu leen biir sawara atar daa mbaadu da ngay gërëm xabiban soppe boo xam ne yadu yudu xilu day dugal annaara sawar a xibbahu soppeem lexam ke ngirug ràngatiku maanaam ak ndofe wajalin akuk réere inna za giñ naa ni lii la tabibu lii de ak alkande la mata toote saa yoo joxe xebbi yow sama soppe bi aji wa fayka sa ñaari biir yi sa ñaari biir yi foqale te moom mooy biir bi nga xamante ne moom mooy biir bi biir bi nga xamante ne moom la junjaale mooy pëy bi maanaam ndax nit ñaari plaisir la am mooy plaisir du ak plaisir sexuel ñaar yii la am koo leen gis àdduna muy kër kërti di ko wut di wut dara daa bëgg lu mu satisfaire ñaari biir yooyu kese koo leen gis mu muy wut xaalis ñaar yooyu la bëgg koo leen gis muy wut kër gu rafet koo leen gis muy wut poste bu màgg koo leen gis muy wut daraja ak wu tur daa bëgg lijjanti ñaari plaisir yooyu kese maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moo ko tax a kon nag saa yu fekkente ne nag yaa ngi daw ci di ko jox saa yu nekk ñoom ñaar di leen jox bu xaaxuma seena namm téef ataa dina la dikkee anaa dina dikkee la ka ñeel la aarun ak gàcce goo xam ne musbidun aji sax la ci ruusal si kim wa mu ayibu te daf lay ayibal janaaxay rajaa moo tax li nga xam ne moom laa lay digal léegi nag wax na la li nga xamante ne mooy danger bi nekk ci topp ci àdduna léegi nag mi ngi am loo xamante ne moom la lay digal mu koy njëkkee ci yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci xolu doomu aadama mu ne tir na nga daw nax wa maliki sama wàllu borom subhanahu wa taala dawal ci moom dawal te na nga naaw jëfandikoo janaa xay raja ñaari laaf yaa moom benn ba yaakaar borom bi la subhanahu wa taala wal xaw fi ñaareel ba moom mooy ragal borom bi subhanahu wa taala saxal ci loolu noonu maanaam na nga yaakaar yàlla te yaakaar ne dana la baal say rëcc-rëcc te yaakaar ne li nga xamante ne moom nga jot a def mbaaxam yegg na ci bu matul it dana ko mottali te nga yaakaar ci xéewalam subhaanahu wa taala te nga yaakaar ne dana la yërëm waaye nag na ragal itam ndax xamuloo ba xam li nga def yàlla nangu na ko waa wala déet na ragal itam ba xam mbaa buñ la ndax li nga jot a jóg fii ci àdduna ndax dana yegg fa nga xamante ne foofu lañ ko war a fayee ak tamit bu fekkente ne yegg na fa nga xamante ne moom nga ko war a moom lañ la ko war a fayee ndax beneen waaye du jóge fële ne yow da ma doon tooñ wala da ma maa saaga woon wala da ma maa jëwoon ak yu demee ci noonu ba nangu li nga xamante ne moom nga jëfoon maanaam kon ñaar yooyu na nga ko yor di foor foor toolu nga yaakaar yàlla di yaakaar ci yërmandeem gu yaatu ak njéggalam gi nit noonu tamit na nga bokk ci nga xamante ne da ngeen di ragal ci da ngeen di tiit li nga xamante ne maanaam moom mooy ak mbugalam kafaak kon dana la fekk ar rada ak toroxtaange baaril anaami ki nga xam ne mooy aji sàkk mbindeef yi te moom leen xasibu moom mi nga xam ne moom mooy ki doy mbindeef yi te moom mooy ki nga xam ne moo leen di caytu moo tax nag kaay ma digal la beneen mbir ginnaaw bi nga xamante ne li ma la jot a wax yëpp ci sa xol la jëmu si woon léegi nag kaay ma wax la beneen cër bi nga xamante ne mat naa sàmm te boo ko sàmmul musiba la lay indil adduna ak àllaaxira te moom mooy sa làmmiñ moo tax mu ne la lisaanaka sa làmmiñ nag moom li ma la ciy dégg wax mooy at lakk soo ko boyalee maanaam nga bañ koo surveiller bàyyi ko rek muy mel mel xam nga lu lay def da yàqul ka da lay lekk innahu ndax moom laa mel kalay tir sara keem gay ndeg njaloor la al aadi aji tar ji noono al jari u ba di aji songa maanaam aji man ji daw wasu bi nga xamante ne dafa mën a dafa mën a songaate maanaam ko gaynde goo xamante ne maanaam sa làmmiñ boo ko bàyyee da lay nekk parce que sa làmmiñ xam nga lan la mu ne la gaynde la nga nekk ci àll ba nga xam ne daa xiif ba pare mën a daw ba pare mën a songaate ba pare maanaam ah ah ah ba pare mën maanaam ba pare mën a daw kooku moom bu la jàppee du la bàyyi moo tax wa imma yoo xamante ne turit nam nga aw nan ak ndimbaliku waa lay ka ci yow maa ngi lay dénk fekkente ne da ngaa bëgg sa làmmiñ nooy def ba surveiller ko parce que loolu ku nekk xam na ni problème la nan laay def ba surveiller sama làmmiñ mu ne alayka kon maa ngi lay dénk bi izzatin ci beru di bañ di nekk koo xam ne dangay nekk ci biir mbooloo yi saa su ne waju ante maa lay dénk xiif ndax koo leen gis mu xiif ñaare duy faral di tal waxi caaxaan ak waxi fo lu am fulla rek lay wax te noppi watumtin maa ngi lay dénk li nga xam ne moom mooy noppi innahu ndax gis nga noppi de lana ji bu aka riiw teranga lowoo ñeel na moom noppi sabatul alaaf yi juróom-ñaari junni min fil ci ay yiw qusimat yoo xamante ne séddale nañ ko ala sab'i kalimatin ci juróom-ñaari kaddu adaaka li may balaa ma la limal kaddu yooyu dama lay ñaanal adaaka yàlla na la sori xatu bu bépp mbamb ba noppi ma daal lay limal juróom-ñaari yiw yi nga xamante ne juróom-ñaari kaddu yi nga xamante ne moom la ñu mën a séddale juróom-ñaari junni yiw yi nekk ci noppi naam waaw innahu naka moom noppi zaynun la koo gis mu bari lu muy noppi ñaare loolu da koy yokku taar waaye mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel loolu foo leen ko fekk ñaare kooku maanaam damay gis maanaam taar gi day wàññeeku wa suturun ak sutura maanaam maanaam koo gis mu bariwul lu muy lu muy wax nga xamante ne dafa bari lu muy noppi kooku suturul sutura la ci moom ndax kenn du ko xamal dara waye ko xamne fu mu toll di wax rek ñépp koy xamal leppum kon kooku mu ne kon dar la ak sutura wa qurbatun ba pare jaamu yàlla la go xamne day taxé a jege borom bi subhanahu wa ta'ala wa hisnun ba pare ak takala manam fortress la bo xamantene day tax gaay duñ la gaawa ñëmé wa babun te buntu la ba pare maanaam wa yajubu day day day xëcc di bijj babal i'tizaaru buntu maanaam ngànt day tax ba maanaam comme nit ki dafa noppi nit ki buñ ko naree critiquer tax dañ naan ah boo moytuwul de naa nga ma tax muy kii maanaam dañ koy mën a wutal ay lay di ko wutal ay ngànt maanaam bénéfice du doute waaye koo xamante ne daa bari wax kooku tout le temps du mën a bari lay kenn du ko gaaw a mën a wutal ngànt ndax lan ndax loo ko nar wutal ngànt rek naan boo demee nangam la fekk moom wax na li tax maanaam maanaam mu def ay ak musiba bi moom ci jëmmi boppam moom moo ko waxal boppam ba noppi bu dul woon dara itam noppi am na beneen yiw bu ci nekk mu riixul aji maanaam féexal la alkiraamal kaatibiina malaaka yi nga xam ne way tedd da ngay bind kat yàlla malaaka yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ci ci mbagg nit ki nga xamante ne ñoom ñoo koy bind di bind ci yaabaam yi ak ni ki noonu ñuy bind jëfam yi moo xam ci yaaba moo xam bàkkaar la malaaka yooyu noonu maanaam bu fekkente ne nit ki dafa noppi daf leen di daf koy yombal daf leen di yombalal liggéey waaye bu fekkente ne fu mu toll mi ngi wax mbel mbel mbel mbel kooku noonu maanaam liggéeyu malaaka yi maanaam day gën a dari bari waxay batun ba pare ak téyu la day joxe charisme moom noppi maanaam fan ne ma aka baax samuutu koo xamante ne aji noppi waa kon la bari bu muy noppi xaashi an koo xamante ne dafa ragal yàlla moo tax mu noppi di xalaat yàlla bu noppee tamit du nekk di xalaat ci n'importe quoi dafay nekk di xalaat ci yàlla ndi ragal yàlla wa at yi bu bare bare nekk koo xamante ne dafa tegginu alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la alaa kaay ma bàyyi loola xel lii bu fekkente ne jotoo ko woon a bàyyi xel ba léegi xal la ak néew man koo xamante ne xat dëgg-dëgg xaalata mi ngi jaxasak an naasa nit ñi saamitan mbiram nekk aji noppi koo leen gis mu nekk ci biir nit ñi suba ngoon guddeeg bëccëg en général duy noppi fala bu damante ñàkk min xiilin ci nee nañu il paraît que apparemment on waqaala ak nee na boo xam ne yar yi bu dana jax-jaxal maanaam moom tey bu nekkoon ci biir nit ñi sax décidé noppi nit ñiy wax di wax ci lu ne danañ jékki-jékki dugg ci loo xam ne dana ko jaaxal mu daal di dugg ci débat bi moom it daal di joxe gré de selam wala boobu nit ñi wax loo xamante ne dana ci bëgg a wax dara moom it di wane ne am na lu mu ci xam ba wax ca dara loolu moo tax lii man li nga xamante ne nit ñi war nañ koo def waaye mu am loo xam ne mat naa bàyyi xel ndax noppi dafa nek ci digeunte wax lu bax ak wax lu bon manam noppi gi nga xamantene mom lañuy wax moy su fekkente ne li ngay wax du lu bax comme li nga xamne mom moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ko xamantene gëm nga yàlla te gëm nga bis bu mujj bi mu ne na nga wax yiw te na nga noppi manam kon boy wax yiw mo gën nga noppi waye nak su fekkente ne lo yiw nak mom kooku nag bu boobaa noppi daf lay daal di war maanaam ki noonu comme li nga xamante ne moom la wax as-saakitu anil haqqi shaytaanun akhras ki nga xamante ne dafa noppi ci dëgg gu ñu waroon a wax kooku seytaane gu muuma la ndax ñaari seytaane ñoo am dafa am seytaane boo xam ne day wax ak seytaane boo xam ne dafa muuma seytaane bi wax day yàq waaye seytaane bi muuma itam day yàq ndax dafa waroon a feeñal dëgg daaneel li nga xamante ne moom mooy caaxaan te ko loolu moom moo tax léegi nag mu daal di wax ne u li ma lay digal mooy wan ak saka sa bakkan ayib dëkkal si di ko ayibal suma topp nag baat bat nag sa biir aa di xaa nanga ko noonoo wa mawlaaka sa borom fashkur na nga koy sant foo toll di ko gërëm innahu li wér boor moom mooy buur yàlla la giñ naa ni waxu bu aji joxaat kon joxa moom mooy joxaa kon bi maanaam moom moo sax dàkk ci moom rek moom mooy ki nga xam ne mooy jox nit ñi wa uxraaxas wa uxraaka sa allaaxira fadlu dëkkal ci di ko sàkku de fexeel ba sa allaaxira jag summa topp nag duniyaa sa sa adduna li nga xamante ne moom lañ ci wax fatru kan nanga ko bàyyi mu addan ngay say mbir nekk aji waajal limaa ci lépp limaa ci li nga xamante ne yusi bu dana ruyal lil aalamiina ñeel mbindeef gi yowmal qiyaamati problème yi nga xamante ne moom la ñuy nekke ak bu ñu wàccee jant bi ba mu nga xam ne day tiim yuur yi nga xamantene day ruyal yuri lolou nonu ba pare nit ñi dana jaaxle di jaaxle ak ñak di ñak ba nga xamantene nit dina lap ci bir ñakam ndax tiit ndax jaaxle lolou nonu nang ko wajal lolou manam mom la la wax mune aet na nga delo ci ca bakkan bu fekkante na dafa nekk ci lu bon won di man te nga rëccu yu bon yi nga defon yi nga defoon ruddata na nga delo al tooñ toñi ahlaha ñoñam lépp to ñun nit ak ku bo yoron mo xam dang ko wax lu ñaaw wala bo nga def ko lu ñaaw wala nga jëlon alalam wala nga jëlon hakam xàqam ak noo xamantene mana ci anam bu mu mën nang ko ko delloo avip té na nga ruyel sa bakkan wa aziqan té nang ko mosal manam nang koy mosal lu metti bu ko top ci liko neex wakki té ngay joy ngir ragal yalla kunta li de boko defé ta tuubu da nga delu ci yalla tuub wanaf saka sa bakkan nak char déeku tëralal ay charte ay condition bul koy bayyi ci lu ko neex kese suma top raqib na ngay fuglu sa bur yalla subhanahu wa taala sois vigilant avec manam ton nafs waxaa si na ngay ceytu sa bop del régler sa bop comme ni nga xamantene nonu lako la ko bi waxe won sallallahu alayhi wasallam wala boog abubakar siddiq radiyallahu taala anhu mun hasibu anfusakum qabla an yawm al qiyamah na ngeen régler sen bop lata ñu len di régler al moo tax Seydina Omar radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne génn na àdduna digg ginnaaw gi dañ cey gis ay dagg-dagg yu bari ñu daal di mu ne te li tax ndekete moom mooy bis bu jot da daan xool moom li mu jàpp ne def na ko ci erreur li mu jàpp moom comme état moom ay erreur mu daal di koy compter erreur bu ne mu am ay yar yu muy dóor boppam ngir maanaam caytu ngir boppam wa aqib te del mbugal sa bakkan wajaahid te na nga yulli say day coono del xeex ak moom aatiban na dee ko ŋàññ dee ko yedd moom sa bakkan taluubu bu ko defee nga dellu ci yàlla fii nag ñaari bayit yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu dañoo duggalante duggalante gu yéeme moo tax mat naa bàyyi xel ndax dafa wax ne la daa ni'matin taw'in balaa in masi'atin xuquuqa ilahi raa'i xaytu tusiibu ka shukrin wa ilmi taw'i lillahi minnatin wa sabrin wa tawbin lil ilahi xabibu maanaam mu ne na ngay mu ne xuquuqa mu ne raayi na nga sàmmonteeg xuquuqa ilaahi samay aqi boroom xay tusiibu saa ne loo mën a def na nga fexe ba sàmmonteeg sa aq boroom bi subhaanahu wa taala ka shukrin kéem di sant yàlla la daa niamatin fëg xéewal wa ilmi tawi na wut xam-xam boo mën a toppee yàlla tawin su fekkente ne danga ngaa war a topp yàlla ngir maanaam boo waree julli na nga wut xam-xam bu baax bi nga xam ne moo lay jàngal ana naka ngay jullee ak mboolem yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju ci ay charte ak ay laaj ak ak ak yi nga xamante ne ñoo mën a tax mu mën a ne ak ponk yeeg yu demee ne ki noonu mboolem jaamu yàlla yi doxalee nag moom doxalee moom noonu minnat maanaam was lillahi ngir jëmmi yàlla minnatin mu nekk xéewal wa sabrin muñ tamit nanga ko saxoo la daa balaa in bu fekkente ne natt dafa ñëw ci yow wat taw bin na nga tamit sàq sàqoo tuub masi atin bu fekkente ne da ngaa def ñaawteef bu loolu boo ko defee day loolu yëpp na ko def nag lil ilaahi ngir jëmmi buur yàlla xabibu yow sama soppe wa iyaaka maa ngi lay moyta ndikuloo iyaaka maa ngi lay moyta ndikuloo way almira a werante gu bari werante moom na nga ko moyta ndiko fa innahu ndax werante moom ila sharri da'awun aji woote waa kon la ila sharri jëm ci jëm ci lu bon ba pare wa minu te moom kat jalu bu da koy xëcc day xëcc moom ay rek lay indi werante gu bari moom ay rek lay indi problème rek wala taku bul nekk tamit kaay ma wax la bul nekk tamit kat baban aji fenaa kon koo xamante ne moom fen rek yàlla nañ ci yàlla musal amaamaka ndax nekk na ci sa kanam mawqifun taxawaay boo xam ne mahibun bu ratlu la bis boobu siwal muxtaari kudul tanefu yàlla bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ci bis bobu raay bu dana lox ngir ci wa wajibuhu warna nak ci fen nak kay ma wax la ben affaire li moy différence li ma la nara wax bokk na ci li différencier ku xam ak ku xamul manam fi ngay différencier ku jàng ak ku jàngul moy yenn situation yi buñu xewé yu délicat yi ni nga xamantene nonu noonu réagir motax mu ne la wa wajibuhu warna mom moom fenn bu fekkente ne inqaazu nafsin ngir xettali bakkan li muslimin ñeel jullit yow tey jullit boo xamante ne tey boo waxee dénoncé dëgg nga wax ko rek danañ ko sàkkal pexe danañ ko rey mbaa ñu indil ko problème boo xamante ne ëpp na def maanaam ëpp na ko problème bu boobaa nga fen ngir loolu moom mën a mucc loolu obligatoire la soo ko deful da ngay am bàkkaar wanat bun ba pare dañ ko sot moom fen li irhaa bi ngir dàq al addu wonoon noonu woo xamante ne boo fenul day dafiy ñëw da lay song nga dàq ko ngir mën a nga fen ngir mu dàqu loolu tamit nekk na loo xam ne dañ koo sopp waye suubu ba bare noonu la boo xam ne day songaate mun a wajaa isuhu dagan na nag moom fen al islaahu ngir mën a yëwénal ay diggante nga fekk ñaari xar yoo xam ne seen diggante dafa nar a yàqu nga fen ngir diggante bi baax loolu dagan na te loolu lu baax la jëkkër ak jabar boo xamante ne boo fenul seen diggante mbir mi du dox mais nga fen seen diggante loolu ba lu baax la niki noonu tamit ay ku demee nekk waajur ak doom et cetera toppal loolu mag ak toppal loolu maanaam fen ngir defar diggante loolu lu baax la waaye kurhun sib nañ ko li zawjati ngir jabar ngir soxna maanaam nga fen ko nga xamante ne tey la xam nga def li nga xam ne moom la noo xam mooy jigéen ñi à léeg-léeg en sa way am na situation yoo xamante ne bu teewee boo leen waxee lépp problème rek lay indi bu boobaa nga wax leen loo xamante ne dara tax ñu arrêté tey conséquences yi du rëy loolu maanaam dañ koo sib rek nekkul loo xamante ne dafa xaraam waaye si waa zaaka lu dul lii nag ah naku bu dana dana jéggi anu wëlliif ko lil aali na ñeel way yëkkati ku yooyu daraja ñu yëkkati ko dara di ñëpp dañoo sori yi façon yeneen façon fenn yi eh. yurul yi nga xamante ne moom laa la limal moo tax na nga teet na nga moytu di ko kaay ma digal la beneen bàkkaar boo xamante ne dafa aju ci sa xol wajaanib na nga teet na nga moytu di ko an ri an naa si di ngistal nit ñi ndax laa nafa amul njariñ min humu bu tukkee ci ñoom wala du radu caageenug lor bu tukkee ci ñoom maal feeg lam yàq di dogalul zaaka loolu noonu ngay wut ci ñoom mbaa nga koy daw ci ñoom raqibu yalla bi nga xamantene mom moy mooy fuglu jamni ñi ayan faaw ndax dana jariñ kenn man ko xamne la yan faaw du jariñ kenen manam la ayan faaw deglu ayan faaw ndax dana jariñ ghayra kenen man ko xamne la yan faaw du jariñ nafsahu boppam koo xamante ne moom jëmmi mën ta jariñ bopam dama len di laaj ndax dana jariñ kenen. waman la yàq yi te képp koo xamante du fegu du ran ci di lor ko xamne munul mënul lor munul fegu lor fa kay fa ana naka yu fii bu lay xegaatee lor wala chiaaw te mbir yi nag turran mboolem seen xabdatullahi ci ngëbug yàlla la nekk rabbina mi suñu borom yu sarrifu moom moo ciy soppandi mooy soppandiko maanaam moom moo am manipulation pouvoir de manipulation et d'administration totale fii haa ci mboolem mbir yi fii maa ci lépp loo xam ne yasha u soob na ko xaribu moom yàlla mi nga xam ne moo ki jegeñ ci ala waawee ala yëgaloo ma yëgal sum atun gis nga déggtal déggtal mooy ngay jëf mbaa ngay wax ngir nit ñi di la dégg ngistal mooy ngay wax wala ngay def ngir nit ñi di la gis mbaa ñu di la dégg ngir di mën ni maanaam mooy ngay def mbaa ngay bàyyi ngir di wut considération ci xolu nit ñi loolu moom mooy ngistal bu fekkente ne ñu dégg la loolay déggtal loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man raa raa allahu bihi wa man samma samma allahu bihi képp koo xamante ne da ngay ngistal yàlla dana la weeje taxaw ci sa kanam wan nit ñépp ne la waa jii day ngistal ki noonu kuy déggtal yàlla noonu la lay def sa dana ko soril waaye nag négativement moo tax subhanallah képp koo xamante ne day def te yàlla taxul muy ngistal mbaa muy déggtal sama borom subhanahu wa taala day def ci xolu jaam ñu xam ne kii dafay ngistal ak day déggtal moo tax ngay gis nit ñi naan man c'est que diw daf maa soof quoi parce que dafa bëri dosé maanaam loolu ngay dégg nit ñi di ko wax loolu moo tax mu na la nag kon ndéggtal mislu som mislu riyaay keem ngis tël la mel ñoo yam cepp ci bàkkaar waaye nag mu daal di tàmbali beneen wax ni la wax hibatun waaye jëw ka ak li mi ngi mel ni keem lekk loxoomil mayitiina yàpp ñi nga xam ne way médd lañ nasibu koo xamante ne yéen a bokk askan ku melni tay nga bokk nit askan mu de medd nga jël yapam diko lek nonu la jëw mel ci ngon lolou motax borom xam-xam yi rahmuhumullah di wax ci li nga xamantene mom lañu wax fi ci te te bi wax ko sallallahu te alquran wax ko bok bim ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fa bi nga xamantene mom la wax ni jëw de dafa mel nga ya yap medd bo xamne sa mbok la maanaam loolu xam ngeen ni bëggoo leen ko loolu la jëw mel est-ce que bëgg ngeen loolu mu ne ceeb xam ngeen ni loolu bëggoo leen ko ñu ne loolu dafay tegt la ne gis nga yow mal xiyaama bu fekkente ne da ngaa jëw nit yàlla day créer prototype bu mel ne waa jooju noonu ba pare mu boole ko mu nekk médd bu xasaw ba pare ñu obligé la nga def ko yal nañu yàlla sàmm moo tax mu ne nag war kon mu ne waman képp koo xam ne laa yu jaanib du teet du maatandiku xiibatan naa si di jëw nit ñi daxrawoo diirug jamonoom diirug dundam sayal xoqoo xeelséef na koo dab yawmal jaza i bis bi nga xam ne mooy bisu pay gi nax yibun ay yëqat képp koo xamante ne du moytandiku di jëw nit ñi bu àllaaxira jotee ay jooy yu méttee méttee moo koy fekk maanaam muy yëqat moom mooy jooy boobu nga xam ne jooyu xol la mooy mm, mm. boobu jooy moom moo koy dal maanaam wala tax sa wala tax si ban na bul njort allah ne buur yàlla rabbi ya sama borom xaafilan daf mbiram dafa nekk aji yëgadi wala afi sàggane bul defe ne sama yàlla dafa sàggane comme ni mu ko waxee wala tax sa banna allah xaafilan amma ya'malu zalimun bu leen defe mukk ne yàlla dafa sàggane li nga xam ne moom la tooñkat yi di def wama lafizun amul benn kaddu boo xam ne def na ko wax illaa lu dul la day nekk na fa moom raqibu moom ki nga xam ne mooy malaaka bi ñuy wax raqib mooy aji fuglu comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran waxe maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid nit ki du génn benn kàddu lulul am na raqib ak atid ñaari malaaka yooyu nekk ci wetam ñooñu mooy journaliste journal parlé parce que tout sànq tuddoon nañ journal écrit bi mooy ñiy bind mu ne atusbihu ndax da ngay xëy kullal yawmi bis bu jot xëy maa ne xam say mbir nekk aji yerele di aji maye xëy rek keneen ku dul yow xuyuur ak sa yiw nga def sa ba noppi jël ko daal di ko bon je le fais don à monsieur diw ndax loolu ab yanu maanaa la xel ndax yar daa dana gërëm bi daaka ci loolu ari bu ko xellu achadu moom nga moom jëw moo gën a tar wa addanaate moo gën a suufe ci bàkkaar min salaasiina maanaam moo gën a doyati min salaasiina ci fanweeri zunyatan njaaloo njaaloo yoo xamante ne dañ caa amee doom la dal baax bi faf ñenn ñi ci borom xam-xam yi ci islam ci l'islam ndax njaaloo bi nit ki def fekk du jullit boo ko tëg bu ko defee fekk jullit la ndax jullit bi moom xam na ne njaaloo baaxul loolu maanaam kooku ba pare njaaloo yow mu am ca doom fanweer yu mel noonu nag jëw moo ko gën a bon gën koo garaaw saa ak a ñaaw salu bu koo xamante ne day jëwaate yëkkati làmminam rek di ko dóor ci nit ñi xatuutul ki nga xamante ne mooy aji jaxasewaate nga xam ne day jaxase nit ñi kooku moom jinaan allaahi aljana yàlla ya laa yadxulannahaa du ca dugg mukk comme ni ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam wala qaati'un du caageen aji dog al arxaami mbokk yi zaaka gis nga kooku tabibun ku kort ku torox lay doon ku alku lay doon koo xamante ne day dog mbokk moo tax nag kaay ma wax la képp koo xamante ne dafay wër di dox ay di dog ay diggante ak yàq ay mbokk kaay ma wax la ni nga war a doxalee ak moom wakas dib na nga fenloo xatuutan képp koo xam ne dafay yàq day yàq ay diggante di jaxase ay nit wan xoo na nga ko tere wob xadan na xoo te na nga ko bañ na ko wax ni ko lii ngay def day baaxul wob xadan na xoo te na ko bañ ba wan ko ne ko lii day bañ nga ko te yow doo nit ku baax wala tax si ban te bul jàppee suu an lu bon axaaka ci sa mbokk taxu bu boo ko defee danga nga dëkk ci bàkkaar maanaam mooy na nga fexe ba sañ bi tamit li ñuy wax ci moom ci lu bon bul ko gëm neel waa ji hey li nga wax du dëgg man gëwma la te bul ko gëm aussi bul ne bu ko wax loolu ba pare taxaw nan hey mais est-ce que waa ji nekkul di wax dëgg déedéet wala takute bul nekk tamit ginnaaw nga jasaatan di aji reju moom mooy di agent secret wu di xool nan naa xool surveiller bu baax ba xam waa ji li mu wax dëgg la wala déet wala tarde bul gërëm fi àlahoo jëfam jëf maanaam li mu jëf yow bul jëf laa même chose maanaam nit ki jaxase na laa diw ba nopp nga wëlbatiku yow def nga lii lépp ba pare wëlbatiku dem yow jaxase ko ki mu la doon jaxaseel naan ko diw daa ñëw ci man naan ma nangam ak nangam maanaam ndax yow des nga léegi li nga xamante ne moom la moom nga ko tere li daaka moom moo tax lii lépp nag mata saa yoo xamante ne jaa a dikk na alxatuutu aji jaxase ji wujubu lii dafa war wa iyaaka maa ngi lay moytandiku loo dex kan di ree kex kex kex kex kex kex kex nag laxwat ak maanaam ay ay mbóorante du abatan ak ak ngóosóor maanaam di wax waxi caaxaan ak waxi foo wax ah ooya ni fu dana bañ min haadal xisaali ci yile jikkoo xasibu képp koo xamante ne mi ngi caytu boppam tey audité boppam nit koo xam ne foo ko fekk mi ngi ree rek rek na ñu yàlla sam wala tanzilu te du wàcc ar rahma yërmande yàlla yi malaaka yërmande yi du wàcc bi majlisi ribatin ci jotaay boo xam ne jotaay yu jëw la wa zikru duna ak jotaay yoo xam ne adduna rek lañ ciy waxtaanee dakkin ak jotaay yoo xam ne reetaan kex kex kex rek lañ fa nekkee naxaake yàlla na la sori na ko bu mbamb mi maanaam lii nii lu mat a bàyyi xel la subhanallah da ngay gis ay nit ñoo xamante ne dañuy woote woon di dañoo bëgg nekk ci yoonu diine waaye fu ñu dajaloowee waxi caaxaan rek la ñuy waxtaanee waxi adduna rek la ñuy waxtaanee duñu waxtaanee loo xamante ne dana leen yokk seen digganteeg seen borom subhanahu wa Lila la la wax ne beurep jotay bu mel noonu yërmande yàlla du fa wacc la ilaha illa allah mu ne wa fi'laka sa jëf nak la taajab bu ko awul yim ci sa jëf bul japp ne man dal nganda laa ponkal la aw jëf mom moy lan mom moy masalan nga am dara am yalla may la nga man nga def lu bax wala nga am capacité lu bax wala nga mu def ci yow ak man-man ba nopi nga taxaw naan cëy may ngand maanaam nga fàtte xéewal gi nga xam ne moom la yàlla def ci yow nga jàpp ne yow yaay ngand moo tax wala tatakabbaran bul rëy rëylu bul rëy rëylu fa innaka li wér ba war mooy fii shakkin yaa ngi nekk ci sikki sàkka yuri bu boo xam ne dana dana def dana dana jaaxle dana déng déngiloo nit ki hudita yàlla na la yàlla gindi wala taataqit te bul fas ci sa xol fadlan ngëneel alal xayri ci keneen ak kooku kum mën a doon loolu soo ko defee tax tarir danga nga waru fa inna li wér ba war mooy xitaamal am li mu lu mbir yi yàq bu dafa faat ba anka ci wëllif la xam nga fi mbir yi mujj loolu moom xamoo ko loolu moo tax kon nag bul xeeb kenn bul jàpp ni gën nga kenn waxu ka yelloo na ala tujaar ci way yaxantu yi te moom mooy ñi nga xam ne ay commerçant lañ an allah yu faaxiru ci ñuy ban di puukarante ci seen kaw kaw keneen xubay la rabaaxi lu diir bu tuuti lu jiitu maanaam tonawo gi mooy bénéfice gi wal xisaabu xam ngeen rek réglé wi xasibu lu jàqalaate la lu tar la de maanaam loolu moom mooy lan maanaam tey bu ñu gisee ay commerçant yoo xamante ne dañoo dem ñu daal di masalan tey ñu daal ni ah waaw kon ñu ñëpp ay commerçant lañ nañ dem Dubaay jëli ji ay marchandise ñu daal di dem ba Dubaay wuti ji marchandise daal di indi maanaam man la simple fait que ma gën a bëri lay marchandise yi ma jënd rek ma daal di commencé puukari wu ci kaw gars yi naa leen xam ngeen ni xëy gars yi maa te jaaye guñu ko te jàll guñu duwaan te defa guñu dara te kenn nangoogul sama yëf te yëg seegu ma waat sax faraas maanaam kenn ma sax ba am samay bagage dana ci yoon bi waaw wala déet loolu nag amagul wala boog mën naa dem sax ba ca biir ñu teg may taxe yoo xam ne wala boog ñu saisir ma wala boog ñu nax ma ci ni ñu jaayee mbir mi wala boog ma ñëw ba ci marché bi ñu jaay ma lamb yooyu yëpp mën naa ne te yooyu yëpp maanaam su ma fekkente ne yooyu nag mën naa ne ana naka laay jëndee marchandise le simple fait que ñu jënd marchandise bi rek ma commencé puukare wu ci seen kaw lii mooy li nga xamante ne maanaam mooy tamit li xew feeg ñu ngi àdduna mbir mi leeragul waaw moo tax falaa ta ma nan bul wóolu mukk makra ilaahi pexum borom bi subhaanahu wa taala maanaam mooy ay ay mbiram amaanatan ak kóorute waman képp koo xam ne yaa mën a dangaa wóolu pexib yàlla makra ilaa pexem yàlla yaxiibu kooku de dan karam dana wa iyyaka maa ngi ma tindiklo manam ngolu fexam yalla nak mom moy nek ci dara defene lolu rek warna mana tax yow nga sufe manam lolu mom moy wolu ko wa iyyaka maa ngi ma tindiklo su ak vanni di ñaaw njort yow man bis bu ti doon ilal wara ci minde fi ana kon bu fekente ni ci minde fi la la ko tere lan ngay xalat ko xamne dafa ñaaw jëme ci boromam subhanahu wa taala wala siyama kon rawatina buur yàlla bi aju fees dell ci yërmande bul ñaaw njort ci moom jàppal ni dana la yërëm faada moo tax texe na mu ku wéeru ci yàlla alaa waawee alaa yëgooma yëgal inna ba'da zanni li ci njort yi te mooy boo xam ne mu ayibu nday ay ba alaa waawee alaa yëgooma yëgal la xanaa xamoo innahu moom njortu bu ñaaw day <coughs> bu moom mooy waruwaay lil kaazibiina ñeel fenkat yi koo gis mu mën a fen di mën a nettali loo xamante ne dara leeru ko ci ci njortu bu ñaaw lay tërale mbiram waaw kii day diw day mbiram mii day man day yaakaar naa ni day nangam nangam maanaam nit ñi commencé eh? waaw lépp fi ndekete ci njortu ñu ñaaw la départ yow nit wax waxam nga ne lii la ci jublu wala nit jëf jëfam nga ne lii la ci jublu wala boog leneen ak leneen maanaam daal yow yaay interprété affaire yi wala nga gis ab situation nga interprété ko defar sa scénario daal di teg loolu moom mooy waral maanaam moo tax fenkat yëpp ci njort gu ñaaw lañuy ñuy war a tegee seen i waaw di di loolu nu mu tuddati am na wax ji nu mu ci la ñuy eh, eh, eh, kii comme ni bul sii di def spéculer voilà tarda kon nag bul gërëm xayrallaahi ku dul yàlla yow man bés wakaalatan mu nekk sa wéeruwaay jëlal yàlla kese nga ni moom mooy sama wéer waay alaa waawee inna woo moom yàlla kaaf yi mooy aji doy al anaam mbindeef yi xas yi mooy ci leen di régler te moo leen doy sëkk wa iyaaka maa ngi lay moytandikoo al iyaaka maa ngi lay moytandikuloo comme ni ci bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam alxidaaba maanaam mooy man a maanaam di bari looy mer maa ngi lay moytandikuloo di gaaw a mer li qawlihi ndax yàlla waxam bi mu wax subhanahu wa ta'ala xudil afwa na ngay jàppal yiw maanaam jël jéggale di jéllale wa mur te na ngay digle maanaam war mur bi loxor te na ngay digle lu baax waaari te na nga dumboo yo xamil na wëllu ñi nga xamante ne dañoo laa ñàkk a xam ba tax ñu di la tooñ inna za géeñ naa ni jikko yi nga xamante ne moom la wax ci aaya mooy ñett yooyu la giñ naa ne ajibun lu yéeme la way yaaka maa ngi lay mooy te ndiko loo xat an nazari maanaam mooy di dog sa xool an ndax walu rabbina suñu borom manam nga baña di xol ne manam yalla di baña gis magga yu yalla way yow ngay gis rek ila man di jëme rek sa bëtt yëpp nga tek ko ci ki nga xamni yu siiw moom kay bu ko défé la yaji loolu bo ma ngi lay mod di ko loolu bu ko défé mu baña ko bu mbugal ya af daari yi da nga ci biir kërëm gi mom yalla wal mulki ak nguuram gi moy aduna wal milki ak momelam gi mbaadu da ngaa foog ne faayilun nekk na am na aji def ala xalqihi ci mbindeefam yi maak loo xamante ne laa yasaawu néexu ko moom yàlla ngeen defe ne dana fi am musibu di fi da di fi amee isa mabtulita moo tax saa yul fekkente ne am na natt bu la dal isbir na nga muñ aw wala boog ootiita bu la fekkente ne am na lu la yàlla xée wala jox la ko fashkuran ay waay na nga sant yàlla te gërëm ko bul fi nekk naan mënoon naa ëpp lii bul fi nekk di jàmbat jàmbat bu dul waa afite na nga te te deel xool tamit maanaam deel xool ci ñi nga xam ne ñoom nga tane waa afite na ngay jéggal te jëlale valu man ñi nga xam ne dañoo mari lu ñu lay tooñ in zulimta te in zalim in zulimta ndem tooñ na la wala boog in zalamta ndem da ngaa tooñ yow tamit tatubu nga tuub wa ta'zimu ma kaay ma yëgal la benn jëf yu baax tamit wa ta'zimu màggal amrillahi ndigal mbiru yàlla yi xamlu ak ngaar daajoo abal waraa li nga xam ne moom mooy loru mbindeef yi huma gis nga ñaari jikko yi mawridun ay waru maanaam ay naanuwaay la yoo xam ne saafi zulaali way sell way rootu waay nit yàlla yi sell yafa ñuy roote ca yàlla rahib dañ koo xemmem ñaari jikko yooyu mooy di màggal lépp lu yàlla màggal yàlla màggal na alquran yàlla màggal na yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak yenent yi yàlla màggal na nitu yàlla yeeg borom xam-xam yi yàlla màggal na jàkka yi te màggal na lu demee nekk kaaba gi ak lu demee nekk madinatul munawwara ak makkatul mukarrama niki noonu maanaam place yi nga xam ne moom la yàlla màggal ak nit ñi nga xamante ne ñoom la yàlla màggal ak symbole yi nga xam ne ñoom la yàlla màggal képp koo xamante ne daf leen di màggal mu ne boobu benn ñaareel moom mooy xam lu azal mooy di ngaar dajjoo loru mbindeef yi mooy lan mooy nit ñi seeni lor nga nangoo ko tego tegowoo yow loolu ñaar yooyu de nit yàlla yi nga xam ne dañoo yeewu te sell fañu roote ca ca yàlla ñoom dañoo xemmee ma am yii la jikko yàlla nañu ko yàlla may alam ta afala taku bul nek bul nek muk lawama aji ngagna kon khaliqati mindee fi innahu nak mom ngagni mindee fi fo toll di ci rek fudulun koku ay waxi caaxaan la motax tax da motax te innal fudula nak waxi caaxaan mom ma ay bu ndey ay balate motax fo gis ku meuna critiquer da ngay dafa soof quoi alam tara xanaa gisoo annal nak nekk mindeef mindeef yi ha ah, annal khalqa mindeef tajri day daw umuurahum umuuruhum seen mbir ala ma yashaa ci li nga xamante ne soob na ko allah bur yàlla woowote moom raqibu moom mooy ci leen di fuglu ala waawee yëgoo ma yëgal la innahu moom yàlla yubdi mooy feeñal ashuuna mbiri li xalq yi ñeel mbindeef yi lu nar a xew rek moo koy feeñal la daa kulli yawmin ci bis bu def comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee kulli yawmin huwa fi sha'nin lil osaati te moom mooy ki nga xam ne yatuubu mooy ci sax ci di tuubal di nangoo tuubal lil osaati ñeel mooy yàlla ñii mooy yàlla isa ma saa yoo xamante ne ramaaka jam na la addahra diiru jamono yawman bis bal yetan ci nattu yu kaffiru xamal ni rek day far bi min zaaka ci boobu albalaa u nattu zunuba say bàkkaar xam nga ni nattu boo am problème boo am xamal ni rek yow bu la dalee rek jàppal ne daa am ay say bàkkaar yooyu ña ngay effacé wu ñu ma ngay lakk say bàkkaar wayum xiita dana far bihaa ci ba ci ci ci ci lu ci yooyu noonu natt yooyu maa loo xam ne lay sam tam xaawu du ko far mukk taa atul yàlla nit mën na faroo ci natt bu ko dal rek même bu dee da ko dal kese ah moom jullit maanaam bu boobaa dina yàlla dana ko ci effacer ay bàkkaar yoo xam ne mën naa jaamu yàlla ba keroog muy dee te yàlla du ko effacer. moo tax nag wataamul ah wataamulu dëgg nga mébét law doon donte saxoon na alayka ci yow kurubu ay problème gis nga boo demee ba yowmal xiyaam ba gis li li ngay am ci la fait que nga nga daan am i nat da nga doon mébét mais man soo tëdd. aka neexoon sama giiru dund ma dëkk ci problème wala tanzaat bul xëccu in daaka ndem tar ndem ndem xat na wa ah, in daaka ndem xat na am mbir bu fekkente ne problème am na bul di xëccu di di di di di xëccoog yàlla fa innama li am ba des mooy yu yufarrijuhu dina ko firi dina régler problème bi xaribu moom yàlla imma sabarta bu fekkente ne muñ nga alaa waawee alaa yogoo ma la xallil na ngay néewal alhimmaati si yitte in qaala xamal ni bu waxee moom yàlla kun nekkal fa yakunu loola day nekk in qaala bu waxee kun nekkal yakun loola day nekk wa maa lam yakun lépp loo xam ne nekkul yàtt yi di ko dikke moom yàlla lay sa yasuubu loola du am lépp lu yàlla dogalul noppalu ki te xam ne loola du am amin ba ndax ginnaaw wa'dillaahi bi yàlla digee suma topp damaan yi mu teg fi ay garantie wa aqsaam yi yàlla géñ ne dimbali ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ñooy jullit ñi yàtt yi ci aada xol yi wajibu ak jàq ndax nit mën naa jàqati ginnaaw bi alxuraan ni mu feesee dell ay aaya yoo xamante ne day wane ne maanaam nit moom dina leen régler seeni problème jullit ñi dina leen dimbale ala kulli xaal wadaaw yi moo tax na nga sax ala zikri ladi ti di tudd alladi di tudd di sikkar alladi yàlla bi nga xam ne jàlla màgg na ba ëpp xelu mu ne di zikroo tuddam di zikri ci tudd ilaahi sama yàlla sama borom keefe di ko tudd ci loolu rek tat ma innu ci lay dalee xulubu xol yi moy problème mu stress yeeg yoy ngeen di deg bo leen beugé mu faju sax leen ci di sikar manam mu ne li ka te na la fekk ma wax yi te feeg yaa ngi dund sa borom zakiran mu fekk la ngay aju tuddu ko xaye yow sama mbokk tulu asam ci sa yu jant bi fenk summa ghurubu top sa yu jant bi so na la fekk nga nek di inshallah leg mu jeex wala ñu arrêté ba pare wa sa manam na la fekk saa su nekk ngay sikkat jeex na ba pare jeex na ba pare lakin na waaye nag jadwa zikri ma yi tukkee ci sikkat in lam yakun ndem nekkul bihi ci moom sikkar boobu xuduurun ak teewlu xaliilun lu néew la wal xuduuru waaye teewlu xariibun ak a tumranke ak a néew ñoo xamante ne bu ñuy sikkar du dañuy teewlu te loolu bu fekkente ne amul loolu bu boobaa ma yi nga xamante ne ñooy tukkee ci sikkar yi du ñu am loolu nag kon moom mooy problème bi nga xamante ne moom moo am ci sikkarkat yi wa in turid waaye nag wa in turidan saa yoo fekkente ne namm nga naylal wusuuli joteg àgg li xaaliq yi ñeel sama borom kaay ma jox la remède bi nga xamante ne moom la ñuy wax le remède miracle solution miracle bi kaay ma jox la ko su fekkente ne danga bëgg a yegg ci yàlla alayka maa ngi lay dénk alal haadi ci ki nga xam ne moo ñu gindit ba teg ñu ci suñu yoon bii ñu nekk sallallahu alayhi wa sallam asalaata maa ngi lay dénk ngay sax ci di julli ci moom tusibu bu ko defee nga jote li nga bëgg te mooy yegg ci yàlla te xamal lenn wa maa xalaqa bindul arrahmaanu buur yàlla bi aji fees dellu ji yërmande shay'an dara li nafsihi ñeel boppam si wax sayyidi ku dul xanaa sang booba almahmuudi mooy nga xam ne moom la ñu gërëm te gërëm ay jikkoom wa huwa te moom yenent bi sallallahu alayhi yàlla ba suñu borom subhaanahu baaqil xalqi ni nga xam ne ñoom ñooy mboolem mbindeef yi nga xamante ne ñoom ñoo des ta'zima ngir màggale ko hubbihi soppeem googu nga xam ne daf koo sopp ba mu gënal ko ñëpp alayhi moo tax du ma ko tudd te du ma julli ci moom na sax di nekk ci moom tahiyatul ilahi lii nuyoog sama borom subhanahu wa taala ak ay jàmmam tati bu yoo xamante ne dañoo sax ak yàlla yàlla sax ci di julli ci moom moo tax nag mu ne la wagan nas li gis nga way wii ma way nose ko teg fii doy na sëkk li saali ak saali li ak saali kii na ñeel mboolem ñi nga xamante ne way soobu lañ jëm ci yàlla képp ku bëgg a dem ci yàlla jàppal way wii nga takk ko jàpp ko mokkal ko jëfe ko li annahu ndax moom way wii basirun dafa gis bi adwaa'il qulubi ci li nga xam ne moom mooy euh, saafara xol yi ginnaaw bi mu gisee li nga xamante ne mooy seen feebar léegi nag gis na lii saafara xol yi te ne xam na ni xol moo ëpp solo comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wa ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهو القلب ألا waaw yëgoo ma yëgal la ne am na ci yaram benn suux benn chair boo xamante ne su baaxee yaram bi yëpp baax na waaye su bonee su yàqoo yaram bi yëpp yàqu na te loolu mooy xol moo tax nag xol bi su baaxee mu ne lii way wii ma nose fii tabibu ba bara day saafaraate ba pare nag yàq fii kon dana doy na te day yàq fii day tekki dana doy yàq fii day tekki day fegalaate ba pare yàq fii boo ko xoolee maanaam cent onze la muy cent onze bayit exactement mu tolloog turu yàlla bi nga xam ne mooy kaafi mooy yàlla mi doy ñëpp loolu moom la ñuy wax tawriya léegi nag mu ngi daal di jeexal nag mu ne laa yàlla na julli alal muxtaari ci aji ci tànneefu yàlla bi xëy nan jamono ju nekk musalliman mbiram nekk aji sëlmal ilahun buur yàlla yàlla na nekk moom di julli ci moom moom yàlla mi nga xam ne du'a ul muljiina ñaanu ñi nga xamante ne ñoom ñoo wéeru ci moom yu ji bu dañ daf koy nangu maal ali ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooñam yi wal ashaabi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saxaabaam yu gore ya radiyallahu anhum turran mboolem seen zawil ula ñoom ñi nga xam ne ñooy borom maqaama yu kawe ya wa man yaqtafi waaye yàlla na jullitam ci képp koo xam ne topp nga asaarahum seeni jeexital te yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu wayu nii bu te mu wéeru léppam yàlla wadaa buur yàlla yàlla nga maanaam yëg yëkkati rabbi yow sama borom wisiran bakkaar yi nga xamante ne kaana nekk na anqada muy diisal zahrana ci suñu digg ginnaaw comme ni nga ko defale yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga naan alladi anqada zahrak bi jaahi ci barke nabi in yeneen bi nga xam ne yarta jiihu moom lay yaakaar ka ibu képp koo xamante ne dafa jàq képp ku am problème ci moom lay dellu si moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fa yaa rabbi e yow sama borom illam yàqu bu fekkente ne nekkul yarjuka di la yaakaar muslimun aji bàkkaar kat fama baalu naa ana lan mooy suñuy mbir yowmal xabir yow ma bis bi nga xamante ne alxabiru aji dañ kumpa nga xam ne xam na lépp jaam ñi xasibu moom mi ngi ceytu mbiru jaam ñi falay sal déet lanaa ñeel nu rabbun buur si waa ku dul yow ñun yow am nga yeneen jaam yu dul ñun waaye ñun de amuñu beneen borom ku dul yow wamaa la naate ñeeluñu malaasun wéeru waay wala man jan du tekk làq waay bu ñu mën a muccee si waa ku yow yatru bu koo xamante ne dana nangu suñuy tuub ak suñu ñaaw te fi lu muy bari bëri yàlla ñu ngi lay ñaan ala waali duñ ci bépp waajur ci suñu waajur yi faxfir yàlla nga jéggal leen wa shaykhin yàlla suñu sëriñ yi nga jéggal leen wa muhsinin képp koo xam ne mos ngaa def lu rafet jëm ci ñun tamit yàlla na nga ko jéggal kazaka ni ci noonu nag duñu ko bàyyi duñ ko yamale ci ñooñu yàlla dañuy ñaan nga jéggal jami'al muslimina mboolem jullit ñi xarib yow yàlla mi nga xamante ne yow yaay ci ñu jege ala ci kaw ki nga xamne moy mooy gën di mbindeef sallallahu alayhi wa sallam aska gën ja sel yàlla nek ci mom sax ci mom gën ja sel tahiyatun manam nuyo gannaaw ba nga julle ci mom madad dahri diirug jomono ya rahman yow mi nga xamantene yow ya bur yàlla bi nga xamne yow ya fess del jërmande rabb yow sama borom mujibu yow mi nga xamantene yow yaay nanguy ñaan kon luy mom moy zadirul qulub walillahi alhamdu wal minnah ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala lépp loo xamante ne nekk na ci ci yiw ak teraanga ak barke lépp loo xamante ne nekk na ci leer bi yàlla nañu ko yàlla defal ci yàlla bu ñu xañ yàlla bu mu boole ñi nga xamante ne dañuy xam ba noppi duñ ko jëfe yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu weeru koor bi génnee dinañu continuer di def lu baax addun adduna ba noppi tamit bu demee àllaaxira yàlla defal leen yiw gu yaatu bokk ci ñi nga xamante ne dina leen teera teru teral teeru leen